توفيقي إلى بالله وعن زرار الخلق والرزايا والجنة والسيطان والبلايا مع البلاء ومع الأمراض وبردا تنخاد لي أخرادي ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منسفلا وجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرة النبي وخلب عصدا سدد لساني نبي جناني سفي عماني وسد بلعي mbokki boki mbokki julli yi mbokki talibé yi mbokki ñi sétane ci télévision Thiès TV ñu ngi leen di nuyu euh fi ñu leen baxoon nuyo di leen ziara euh, di ñaan suñu kaddu gi tamit yalla na leen fekk yeen ñepp ci jàmm euh, di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, di suñu borom bayiko fi yagal ko lool te dolli ak gërem waye nu ngi koy ñaanal bu baax itam nañ ji bay Fall bi di sëñ mustapha Fall mom sëñ Modou Mbenda jàmbaari maam Cheikh Ibrahima Fall jooju nga xamante ne fëkkatal la yal na ko sama borom bàyyi guddal ak fanam wéral ko moom njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp waaye rawatina suñ bunt muy Cheikh Mamadou Fadal moom suñu sakkoor nu ngi koy ñaan mu yàgg fi lool moo ki ak rakam noo ngi ziar bu baax ki ko fi nekkal muy soxna Sali Fall koy ziar bu baax moom njabootu suñu sakkoor gépp ziar buñ ca ziaree suñu bàyyi baara sekk ni ma koy waxee rek moom suñu mot sekk sergent day mel ni siyaare nan mboolem bay Baara Ndiaye ak bay Aliou Guèye ñoom ak bay Talla seen mag ñooñu ñoom ñëpp ak njabootu mag ñi fi des yàlla na leen fi yàlla bay ñu ngi siyaare bu baax itam seen Cheikh Fall Ngonda ñi nga xam ne tey jii moom la ñu yendool fee ca kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci Madina muy taxaw bisu waajuram mu tedd wa muy maam Saliou Fall ñu ñaan yàlla yàlla dolli ay leeram maam Saliou te taas ñu ci barkeem. moom mii ko wutu di Serigne Cheikh Fall yàlla na jataayam bi yàgg lool ak mboolem njaboot gi ak taalibe yi noonu lañ koy ziare nag mbooleem njabootu maam Cheikh gépp di ziar bu baax Cheikh Moudou Lamine moom sëñ Mbàkke Madina ndeysaan moom itam nekk fee ca Touba Jobaas nekk fa na maamam bëggee ku ko ni nekke ba Jobaas gépp jublu ko ci taxawaayam ci melom ak mbaaxam ak yaatalam yàlla na ko fi yàlla bàyyi na ko yàlla wéral Cheikh Amadou Lamine di ziare mbooleem njabootam gi nag bàyyiwuñ kenn di ziar bu baax Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré nga xam ne moo toogee jotaayu Serigne Saliou ture di jàmbaar lool amuk dal lool mu bëgg lool ci liggéey bi am ci yéene mu ko ñaanal moom itam moo ki rakkam fee tey jii ca Madina Faat rakkam ju baax ji di Serigne Saliou mbenn ànd ak mbooleem dayra bi ak njaboot bi ñu ci ëpp ñëw fekk si jataayu sëñ Saal seen Cheikh Fall Ngunda ba wettali ci ko wettali si ko na ko way juróom moo daa defee sëñ Saal Touré nit ñi bëgg ci lool am ci xol bu sedd guy di ko ñaanal moom itam sëñ Saal Mbène ci taxawaayam ci ron magam ji yàlla na yàgg lool te yàlla wéral ko te sàmm ko ba li ñu yéenee liggéey lépp ñu def ci lu kawe ak njot ak mboolem njaboot gi itam noonu lañ ziyaare sëriñ Xaadim Lo moom sëñ Moustapha Lo moom sëñ Modou Issa dem ba Baxdaad ziyaar ko moom itam ci taxawaayam ci liggéey bi ak bëggam suñ Touba ak yéeneem ci yoon wi dañ koy ziare ziar bu baax sëriñ Assane Kan Nasru ziar bu baax itam sëñ Abdou Karim ko ziare ziar sëñ Murtada moom sëñ Mudu Fat Xëri waaja Daaru kërim waaye ci bisub laylatul xadr boobu nga xam ne ndeysaan Daaru kërim foofu la ko njabootu suñ mas li ëpp ci njabootu sëñ Masamba gi defee ma koy ziare bu baax a baax a baax ni xam ne ni ñu ngi ci waaj yi di ci suñ ziar sëñ Modou Modou Modou sëñ Modou Traoré ak ñi mu ko àndal suñ Mohamed ñoom ak mbooleem moom Mamadou Lamine moom sëñ Massamba waaye nag ak tamit sëñ a Ndiaye téer bu mag boobu tamit ak ñëpp waa kër ma Massamba daal bàyyi woon kenn ak sëñ Pape Thiam jëw ni sëñ Mamor Mbacke sëñ Mamor moom sëñ Massamba mu ngi leen di ziar bu baax a baax ak couleur bi yëpp ba ci aatu sama xarit sama jàngkat ma ziare waa kër ma sàmba faaw ma ziar ko nooy ziar kulluhum soxna say bata ay dara di ko ziar di ziar njaboru Cheikh Mour Fadal sëñ Abdoul Fata ak sëñ Mokhtar ak sëñ ma soxna maam Bousso ak Cheikh na maam Bousso Moule ca Mbour 1 moom sëñ Abdourahman moom sëñ Mandumbe njabootu sëñ bi féete Thiès ñëpp bàyyiwun leen fàttewun leen ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax kenn ku ne yàlla na ko sa sa taxawaay yàlla ko yàlla yàggal yàlla na ko yàlla dëgëral njabootu lislaam gi sëñ Cheikh Muniru sëñ Muniru Jegéen sëñ Assane Seck sëñ Mbaye Sy Mansour kilifa yi Cheikh Albekaay mboolem ñëpp kilifa yi bàyyiwun leen ñu ngi leen di ñaanal daal yal na fi yàlla bàyyi te mottali seen yéene ci toolu lislaam tey nag ku ne dégg na démb ñu doon bàyyi xel seen télévision Thiès TV ñu digal loon jataay bi nga xam ne démb bi ñu ko tàmbalee ci guddig ñaar fukki fan mel na ni kenn doylu waaye tamit foo mën a dugg ci télévision yi ci réew mi internet bi youtube bi foo mën a dugg rek yaa ngi fekk démb ñuy joobe kan jëw li ñu cheikhul xaddim ji muy maam cheikh ibrahima fall baabul muridina moom mi nga xamante ni mooy buntu yoon wi tey nag ñu amatoon yéene maanaam niñ ko daa defee at mu jot ci bis bii ci guddi gii di ci fàttaliku jàmbaar ji maam Cheikh Ibra Fall Baal Mouridina ni ma leen ko digge woon nag ma dalal borom xam-xam Serigne Mbaye Thiam di kenn ci yoon wi di ab murit di ab taalibe waaye di ab saadix di ko bëgg sëñ Tuubaa di koo xamante itam ku koy liggéeyal la waaye ci liggéeyin woo xam ni ñeewantewu ci dara ci yaramam ci jëf ak wax ak xel ak xalaat ak lépp ba xam-xam bi mu bi koy sàkku sax xam-xam bu jëriñ mbindeef yi ci Sëñ Tuubaa la doon sàkku moo ko taxoon dugg ci jàngi alxuraan moo ko taxoon a jàng téere xam-xam yi moo ko taxoon a jàng téere yi ila axir yi ba tey bu téwee kaddu mën a leeral mën a wax loo xam ne ci yoon wi ak ci diine lislaam ak sunna xam Muhammad alayhi salaatu wasalaam loo xam ne kenn du ko dindi kon yàlla na ko yàlla sàmm ko yàlla aar koy bàyyi mu nuyo nak ak mbokk taalibe yi nga xamni ci waxtu yi rek ñu ngi jakarlu ñun waaye ñu ziar PDG ziar ko Ras Malik ziar wa kër gi yëpp dina ci dellu ci inshallah allah ñu jox leen sëñ Baye mu nuyo nuyoo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mm-hmm. wa dhakki lubbi waftaxan rabbi liya fatxan mubinan la yura li misliya mm-hmm. wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mm-hmm. gannaaw ba nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam jaajëfal sunu yaakaar yi tey ëllëg ci ahmadu bamba xaadimu rasul ñaanal bu baax xalifatul am Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko amiin yaa rabbal aalamiin ñaanal ko bu baax sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda moom Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéene yi am ci léggéel ko maamam mu defe ko nu njortam amiin yaa rabbal aalamiin noonu lañ koy ñaanalee sëñ Amdi Khady Fall mi fi toog jotaay Cheikh Serif Assane Fall ndeysaan ñaanal ko bu baax suñu wasila maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp moom Serigne Cheikhouna Fall. moom Cheikh Serif asan Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine. waaye nuyu bu baax suñu wayjur Cheikh Serif Assane Diak. ñu gën koo xam ci Baye Naar Diak. Mhm. xam ne moom foofa rek lay lay safoo. Mhm. Cheikh Serif Assane. xam cër bu rëy la ko ci yàlla defal mooy Serif ko uuf tuddee ko boppam. Oh, waaw loolu moom taw feex la ju ñuy sagoo. Mhm. kon ñoo koy nuyu bu baax te di ko ziyaara. waaw di ko jox wàccuwaay yu ko suñu borom wàcce ndax seex si seexu naa faal moom ma wax ca daarul man naan ni ma mhm. sa bàyyi sukk jébbalu boole ko kër Cheikh Ibra da cee bokk dëgg la kon bu baax a baax te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko nuyu suñu wayjur yu jigéen suñu yaay soxna ndaak caam mhm. ak suñu wayjur yu jigéen ya ca koñ ba yépp nga xam ne mhm. saa bu nu jëbee ci yu mel nii rek ni bàyyi seen i te yépp diñu teewlu bu ci mel ni suñu yaay soxna ndaak juuf suñu yaay mère Awa Thiam ak mm-hmm. suñu yaay soxna ko du ñoom ñom ñep ngi leen siyaara mm-hmm. di leen ñaanal suñu borom yagal leen fi te wéral leen amin ya nuyu suñu soxna sañu baye ci kër ga soxna Aïda ndeysaan ñaanal ko suñu borom defal ko wër mm-hmm. nuyu wa kër ga yépp amin way amin di leen siyaara di nuyu sëñ mam goor yow wax deug yalla suñu jëwrin nga ah, suñu kilifa nga suñu xarit nga deug la di jambar lool ci yoon wi nga xam ne lu dul sëñ Tuubaa Cheikh Ibra du sa yitte mhm. li ko ci yéene nag yaa ko xam yàlla dala ko sëriñ bi defal amiin barke borom noo ngi nuyu ñu ñëpp ci waxtu wi di leen ziyaara bu baax a baax a baax a baax a baax suñ maam ba kàddu gi del si incha allah jërëjëf jërëjëf nu ngi santaat bu baax sëriñ Bay ah, di nuyu kooku nga tudd léegi muy su wajur ah, Bay serif Jaag nu ngi koy ziyaar bu baax a baax moom itam suñu wajur la ah, ni mu du du ak njureel waaye tamit niñ ko waxee ci Cheikh Ibra rek moom tam noonu lañ mel ci moom moom tam noonu la njabootu taalibe yëpp mel ci moom ndax noonu la leen bëggee noonu lay dundeek ñoom ci seen xol ñuy ziar Baye Ndiaga Thiam tamit foofa di sax Baye ci Daaru Salaam ak si naaliyum ñi nga xam ne mooy jëruñu xidmatul xaddim waaye ak waa jaalibatul maraaxib gépp nu ngi koy ziar bu baax di teg ziar bi ci loxoom mu jàllale na ko ci mbooleem kuréel ba ziar fa sëriñ Papa Guèye ñoom ak sëriñ Mamour Soumaré ak mbokk yooyu seen Xaadim Soumaré ñoom ñu baax ñooñu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di ziar bu baax baax bàyyi ma kenn kenn kenn sëñ Abdul Atif euh, mi nga xam ne tamit léppam Cheikh Ibra Fall la nu mm. ko koy ziare tamit ci bis bi xam naa tey daal dañuy tàmbalee loolu ci bunt bi ziar suñu wayjur soxna Mbarke Diouf ak waa kër ga ak njabootu kër ga yépp ñu ubbee jataay bi rek li ñu ko fas yéenee euh, euh, birale mooy waxtaane jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ndax bu nuy wax yoonu murit sa sa sëñ Mbay Caam mm-hmm. faaw nu wax Cheikh Ibra Fall mm-hmm. ndax lam ni woon maa yoon wi te itam ba tey jii yoon wi fa mu doore ba fa yoon wi yem jëfi Cheikh Ibra rek a fi nekk jëfi Cheikh Ibra rek kenn mënu fi indi yees lu wuteeg li fi Cheikh Ibra Fall indi maanaam li mu waxoon ne maanaam loo ma fi indiwul sëñ Bàmba indiwu ko fi bokku ci loolu moom moo ko waxaloon boppam kon leneen lu ñu fi dolli mbaa ñu koy bëgg wala ñu koy def rek maanaam bokkatul ci yoon bi ndax li ci mata li ci mata li li li mata wax lépp Cheikh Bàmba wax na loola waaye li mat a jëf lépp Cheikh Ibrahima Fall jëf na loola ñaari kaddu yooyu rek moom moo wér ah li mat a wax lépp sëñ Bamba wax na ko jeneen wax amu fi wax jooy tënk ak di ko indi ak di ko tënkër ci lépp lu mu ci mën a doon boo ñëwee ci waxi sëñ Tuubaa da ngay fekk sëñ Tuubaa nos ko ba nopp ba teg ko ba nos loo yëgagul nag loo xamante ni sax am maa ba nga fiy jógee nos boobu yow sa sam xel mën na kaa ban a daj sa nopp mën na koo bañ a sa bët mën na koo bañ gis ndax sëñ Tuubaa moo toll noonu mbiram loo gën a jëm ca kanam rek ñuy wuññi ci ay mbiram loo xamante ni euh, ca la wéy fekkoon fekkul woon ca mag ña ñu xam ca dara mbala ñu yaakaar nu ñu xaman ni lii yoon wi dana dem ba agsi fii mm-hmm. kon nag loolu beneen mbir la sa jàmbaat yi ngay tudd Cheikh Serif euh, di sëñ am di xadifaal mm-hmm. xam nga ni nee mu def ca kër sëñ Tuubaa gee ca daaraam ju mag jële mm-hmm. nga xamante ne ndam lam fay tabax ci daari kaamil am na mag ñoo xamante ne boo leen fëggoon tey ni leen maanaam sëñ Amdi Xadi Fall moom Cheikh Serif dina def dee boo xamante ni dee boobu sept tonnes lañ ciy sotti ciment moom liggéey sëñ Tuubaa rek wóor dee boo xam ne tonnes dana ci dem poto bu bu ba taxaw doon ay trente tonnes nangam te te te amul brique nag nga kuule ko lépp yëkkati lépp doon ciment xam nga ne loolu sëñ Amdi Xadi Fall jëf jooju te yàqul dara ci li mu war a jëfal sëñ Tuubaa jëfum joo xam dana fekkante jëf jeneen jëf am lu mu ca xo lu wala lu mu cay jëf ju ñëw rek gën a kon yàlla na fi yàgg te wér moom njabootu Cheikh Seck gépp léegi nii rek la ma suñ fàllu ñaaña fekk ci suñ Cheikh Fall Ngonda wallahi ñu nuyoo ziar ko ma ziar ko mu àgg suñ Cheikh Fall Ngonda di ko bi nu ngi koy ziar suñ fàllu ñaaña di ziar suñ Moussa am suñ Mbacke ñaan ñu yàgg fi loolu suñu borom dolli seen wér suñ mbay nag bis baa ngi noonu bis bi daal moo yoonu murit Cheikh Ibra Fall lamp baabu ma dina waaw faaw ñu waxtaane nag yoon wi yoon wi nag mu ne su ko waxtaane te waxtaane woon maam Cheikh maam Cheikh moom mooy yoon fi mu jaar ba jébbalu yitte jooju kawe na yitte ji sëñ Tuubaa nag ci la Cheikh Ibra jaar ba jébbalu moom ci Mbàkke Kajoor ci bunt boobu ngay jaar waxtaanee nit ñi ci Cheikh Ibra lu yaatoo yaatu luñ dégg waaw loolu lañ leen diggoon insha allah te sëñ Mbay dana ko andi bismillah jërëjëf sëriñ maam góor mhm. ma nuyu baax sëriñ Fallou Njaañ moom nga tudd ndeysaan ndax wax dëgg yàlla euh, sunu wëllëre way jur la day ñëw ca kër ga lépp la fa xew ndeysaan dana fa ñëw hmm. euh, nga xam ne euh, Cheikh Ibrahima ca kër ga it mooy wasilaam keroog bi amee tu tànk moo kaw Kawsara ñëw jox ko aw tur ñaanal ko bu baax mu yàgg fi ca ànd ak wér barkeb sëriñ bi waaw xam naa bis bi bisub tey bii day bis bu rëy ci yoon wi mhm. ndax ki ñëw xettali te ak ëllëg mhm. ci la gisee woon ak Cheikhul Khadim mhm. te bu ñu gisewul woon dara du ko jar ci weer wii mu nekkoon muy weeru koor mm-hmm. te ñaar fukki fan ya mm-hmm. xam nga sëriñ bi mm-hmm. lu baree baree baree bari ci ay mébétam yàlla ci weeru koor la ko mottali ne daa wax ni ajran kabiran wa sawaaban wa jaza wal lii fii ramadaana na jaza lu ma yàlla diggoon rek ci weeru koor la ma ko jox xoolal yoonu murit sëñ maam góor ci weeru koor la taxaw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñu laylatul xadar ba ci suba ga mhm. sëriñ bi jug taxaw ni saafahani rasulullahi bi xawlihi rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faxat mm, weeru koor la woon mhm. werdu maaquus min allahi bi wasitati rasulihi mhm. ci weeru koor la ko jot ca gànnaar lim gënoon bëgg ci addinaam di ko ñaan te mooy giseeg sayduna muhammad yaqazatan laa manaa man ci weeru koor la ko am nga xam ne loolu ñaan na ko fu ne kulla zamanin la azalu atlabu liqaahu wa artaji wa arghabu mhm. kabura abrama talabta ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz mhm. yàlla dama lay ñaan nga wan ma sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. xam naa nag li ma lay ñaan lu rëy la waaye yow yàlla dara rëyul ci yow loo yombal mu yomb wan ma sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne sëriñ bi yitteem moo kawe ci boromam ba tax na bi ko yàlla defalee li mu ko defal amatul kenn ku wara dox digganteem mak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sallam la bay ñepp jaayante bana mom wax ni baana li ku baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul mm-hmm. dani maa ngi ak mom sax waye samay beut mënagu ko gis kon sama xol jaayante ak mom ba mm-hmm. ya'tuhu bi fuadi hina lam tarau ayni waqdi waqdimoo muftarida mm-hmm. ñaan yalla mu wan ko ko taralal ci bopam ay jaamu yalla lu ne mu def ko waye ci wëru koor la ko suñu borom wan leeg Seydina Muhammad fii ci Touba ci jàkkay Daarul Xuddus hmm. looloo waral ba ñu gisantee moo waral yoonu géej gi mhm. weeru koor mbiru sëriñ bi la mhm, mhm. nee yàlla defal na ma ci lu kawe sama njort raqa ila fawqil muraadi kulli fii ramadaana muksiran li kulli nee na weeru koor andil na ma loo xam ne wedam loon a wàlliyu yépp gàcceel na leen yaquudu li shahru rabbihil awwali wa ramadaana mufhiman kulla nee na weeru koor ame naa ci loo xam ne nit mënta yendoo woor ba am ko nit mënta ne julli ba am ko yaquudu li shahru siyam moxjila saxyin wa qiyam wa fawq ajri zi qiyam inda qadimun xudima nee na weeru koor ak weeru gàmm dañ maa seereel ci sama borom ni man Ahmadou Bamba ku bëgg yàlla la allahu akbar shahida lii shahru siyaami wa rabbih bi xubbi rabbiya wa zaxzax almabih yashadu lii shahru siyaami wa rabbih bi xubbi allaha wasax saxal ma bi ah mm-hmm. xam nga sëñ Tuubaa jaamu yàllaam gi dafa dem ba lépp koy seere mm-hmm. shuhur yi wa ayaam yi gadat li shawahidun bi kaw ni wa huwa shahiru mm-hmm. dem na sax ba koy seeraloo géeju maayom ba ga lizhad bi anni abda man yaxfiru zanba wa kaw ni xadimal Mustafa baxra maa walis haddaan nii laa udaawni musrikan xalilan xabiban lillati karamal janba ayaa baxru mm-hmm. waxit laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba mm-hmm. fakun zatirabin musbidan min maxaafatin min allahi wa zar anni abduhu sabba sëñ Musaa Ka nee na ko dani ko sëriñ bu dul man musula jaamu rabba mm-hmm. nii nga fi daa labal dañoo mooy yàlla man nag musuma mooy yàlla seetal yilla kenn mosu fee ñëw ngir liggéeyal Moustapha kenn mosu fee jullee fajar kon nag damay topp ndigal toppal ndigal te bañ a far xërëm yii bul topp ndigal mm-hmm. sëñ Moussa Ka ne nag keroog la géej ga fer ba tey du baawaan labbayee naan ko bamba yaa di ndaanaan mm-hmm. nee na keroog la jinne yi nekkoon maayomba mm-hmm. jébbalu ànd ak bamba delloo sàmba bi yataallaqa allazina aslamoo min jinne asri duuna man lam yuslimu lu ñu tudd sëñ Moussa Ka mu ni nabba yaroog jajja ayoog dongoom ya kàkku nakkoog xallirakoog moroom ya askiiru xul naatiir ak nuuru ñi dee daa ziyaare kon li ma jublu woon wax rek mooy. Mhm. lu ko yàlla diggoon ci weeru koor la ko jox bokk na ci jàmbaar ji nga tudd muy Cheikh Ibrahima Fall Babou Mourideen nga xam ni bu ñëwutoon dara du ko jar. Mhm. bu ñëwoon. Mhm. dara du ko jar. dëgg la mos naa wax ni ko Ibrahima Thiam. mu ni ko Fall. mooy ko ab liir bu nekk ci biirub ndeyam. xanaa am réew ma. mu ni ko am réew ma Fall. mu ne ko bu ñëwee àddina mhm. xanaa mu gën faa yaa mhm. mu ne ko waa kay faal dafay gën a yaa mhm. mu ne ko ku ñuy tudd di ma tudd mag sëñ Bamba ni àddina ëppee biir ni lañ ëppee laa na yoon wii maay yemukaay bi képp ku ma fi romb romb nga yoon wi dëgg mooy yoon wi yàlla boole kook Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne mook Sëñ Tuubaa du ñoo nduru ay mbir wax naa la léegi ñu la sëñ tubaa bi mu jaamoo yàlla ba àgg ci boroomam mhm. boroomam moo ko tegtal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. dallani allahu ala muhammadin wa mhm. xaadani muhammadin li sammadi dallani dallani allahu ala xayril wara wa xaadani xayril wara lisil wara waaye Cheikh Ibra itam ba mu ganee àddina jàng la mu war a jàng ba xam ko xam nga ñu bari dañ ko umpale waaye moo rawoon ci réew mi am na ku ko doon way dani Cheikh Ibra teel naa jàng alxuraan mokkal ko tafsir ko biir ak biti yàlla may ko mhm. muy jàng ak di jàngale ak di taalif ba làq xam-xam yépp nekk aarif mhm. mu dem ba jeexal xam-xamub sharia nekk salma chiita amul tariix mhm. salma chiita mooy lu waay laajal loo so ma tontu la fa la Cheikh Ibra tolloon loolu la waykat ba wax nekk salma chiita amul tariixa laajal loo soob ma tontu la fa la Cheikh Ibra àggoon waaye mu bokkoon ci góor yàlla yi nga xam ne mhm. tatajaafaa junuubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum ma wa taman wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mhm. nga xam ne bu guddi masaana jot mhm. kaamilu alxuraan la Sidi Ibrahima daan naafila njëkk muy gisee ak Cheikhul Khadim kaamilu alxuraan baqara ba naasi loolu duy caaxaan de baqara ba naasi nit ñi bala noo xam ne naafila yombut mooy xolal fani koor gi ñii naafila danañ xam ne taxawaayu naafila yombut Mm-hmm. fukki rakka ak ñaari rek bala nu koo matal ñu baree baree baree bare danañu sonn ñii di naafila kaamil durant weer bi nga xam ne dañuy jàng tey suba nu jàng ginnaaw suba nu jàng ba weer wi jeex kaamil bi mat si Birahim dama ñu la guddi gu nekk kaamil la daan naafila njëkk muy gisee Cheikhul Khadim sëñ Saalihu ñang nee na Cheikh Ibrahima mës na leen a wan ci tànkam bi ab dóor dóor boo xam ne dafa ko koŋ ñu leen lii julli guddee ma ko tegoon njëkk may gisee ak sëñ Bàmba waaye li ci gën a yóbbu sëñ maam góor mooy mhm. bu ma sa daraan wax ni moom Cheikh Ibra mhm. naafila kaamilu alxuraan baqara ba naa ñaar taxawee sa ñaari tànk mhm. loolu jigéen bu farloo sax war na ko man man Ibrahima Fall jomb naa loolu sa ñaari tànk baqara ba jigéen bu farloo sax war na ko man xaaju kaw bi lay taxawee benn tànk yëkkati benn bi benn tànk benn tànk bi lay taxawee xaaju kaw bi yëkkati benn bi bu ñëwee ci xaajub suuf yi ba mu taxawoon mu mu mu yëkkati ko teg ba mu yëkkati woon ba minal jinnati wan naas waaye la ci gën a yéeme nee mhm. bu ma saana kàbbar moom Cheikh Ibra mhm. suñu boroom da koy tëralal leer góor yàlla yépp ci kanamam mu jàkkaarloo ak ñoom mhm. bu xoolee góor yàlla yépp seeni leer xam ne gisul ku ko ci dab ñépp moo leen sut benn leer képp lay gis neena na mu nekk ci kanamam bëgg gi bëgg yàlla mhm. tax mu ne xaaral ma gën a taral sama jaamu yàlla ngir jige ko waaye ñu ne lu ma gën a taral sama jaamu yàlla leer ga gën maa sori mhm. suñu boroom ne ma nag jamono bu nekk kenn képp laay wuyu mhm. te bii jamono Ahmadou Bamba rek laa wuyu joxe ko sa bopp lii ma la wax moo ko nettali sëñ Moussa Ka sëñ Moussa Ka nee na mës nay xibaar ak jibbaloom kon moo ko nettali ba wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe raasi ko ba noppi jox ko say pexe loolu lu doy waar la raasi ko jox ko say pexe mm-hmm. ba noppi yàllaa ko tegtal yoon wa ab murit di aw yoon wa ab murit di aw mm-hmm. baraw pexem marit ba mm-hmm. am ngërëm bari murit te dootul ree di tex texi yàllaa ko tegtal yoon wii nu Cheikh Ibrahima Fall jaarloo mooy nu jël sëñ Bamba teg ko ca kaw nun te nekkee fi suuf Cheikh Ibrahima mi ko jàngale suñu borom ak ko tegtal mas na xibaar ak jébbaloom ba wax ni yàlla mi ko moom mm-hmm. moo ko ni bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe mm-hmm. ba noppi yàlla tegtal ko yoonu ab murit di aw ba raw pexam murit mm-hmm. ba am ngërëm bari murit te dootul ree di tex texi yàlla ko ko tegtal loolu saw saw bu mat a dégg la waaw looloo waral mu dem tey ba Dakar dafa dégg bamba di fa xaar waaye ba mu seete siñ tey ba Dakar moomu cim njàng rek lay xame pexe bu ko Cheikh Ibra laajee mu génn téere yi waaw mm-hmm. ah, mu ne ki may seet xam-xamam raw da fii de ki may seet moom nee na xafistu ma siina ani dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri moo tax dañu wan menn mag mm-hmm. menn mag dafa ñëw mm-hmm. dégg ni sëñ Bamba raw ci réew mi mu ni bala ma koo nanga waxtaan mbii naa ci dégg ñett yi benn muy manto wala fas wala alquranul karim sëñ Bamba toog di waxtaan ak jaam ñi mu ne waxtaan wi ma fekk sëñ bi di ko waxtaane di ko waxtaan ak taalibe bii naa ci natt naa ci natt dëgg ci fas waaw wala manto wala manto wala kaamilu alquran wala kaamilu alquran Mhm. sëñ bamba toog ak jaam ñi naan yàlla nee na mhm. rasulullahi nee na mhm. yàlla nee na rasulullahi nee na menn mag ni bërët sumi manta moom soloon ne ko mbàkke lii maa la ko jox addiyee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bamba ni sëñ maalik njaay maalik mu ni ko mbàkke mu ni ko neel kii laaj ñett benn ngoog maa ko deseel ñaar la ilaha illallah daal di woy yàlla nee na rasulullahi nee na mel na mag ni bërit ni ko mbàkke sama naaru góor wi ci kër gi nga xam ne awma lu may moom jox naa la ko addiyee rasulullahi cey sëñ bi ni Malick Ndiaye Malick mu ne ko Mbacke mu ne ko neel kii laaj ñett ñaar ak ngoog maa ko desel benn bismillah na yegsi <laughs> mu yegsi sëñ Tuubaa yëkkati kaami alxuraan jox ko ni ko ana noo def ak jaam bu dëgg mal sawara nga bëgg mu tàbbi aljanna mu ne ulbët kaamil bi sëñ Tuubaa ni ko nekkul ci téere kooku looy jëfal sa borom ba mu nangul la ko te Ahmadu mii képp ko jóg <laughs> moo tax bu laajaan sëñ tay ba Dakar mu génne téere Cheikh ko may mm-hmm. moo tax mu ni moo waral moo dem tey ba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar ndax sëñ tey ba Dakar moomu sëñ Bamba lee baa mhm. sëñ Bamba lee baa la waaw mhm. ba mu déggee mu dégg turu sëñ Bamba wi ndax sëñ Bamba lañ ko tegtal mhm. mu dégg fa Bamba di fa xaar waaye ba mu seetee sëñ tey ba Dakar natt ko moom ci njàng rek lay xame pexe waaye du jaahil mu tëdd guddi listixaar bët set mu xëy ba tusbaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram nga wan ko luy pexe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 moo xam ne gis na ko ko moom mu daal di fab mbiram joxe mhm. ma wax la bis ba ndax mu wóor mhm. ñaar fukki fan ci weeru koor bisub mhm. dibéer la mbir ma wóor Cheikh Ibrahima yaa yi pexe kon ren yi yëf yi dellu si waat na sëñ maam góor looloo kéemaane nag <laughs> ah bisub dibéer la mbir ma bu fay tey delaat dibéer ji ah. ndeysaan kon ren yëf dellu si na macha allah bisub dibéer la mbir ma wóor Cheikh Ibrahima yaa yi pexe nga xam ne bëgg gi mu bëgg sëñ Bamba ak ki muy seet xam gi mu ko xam tax na gisee surtout loolu looloo gën a yéeme nag mooy euh, maanaam mbir mi. bëgg yi mm-hmm. mu bëgg sëriñ bi. maanaam nga xam ni moo ko yëkkati. moo ko yëkkati ah, jóg gi sëñ bi jóg. Mm-hmm. xamante ni da jóg rek ngir wutali. Mm-hmm. sëñ Tuubaa nga xam ni tamit luy nur lu sëñ Tuubaa ak luy luñ koy tëkkalil lu mën a doon su ko nee nii. dana xam ni lii du sëñ Tuubaa mu jàll. Ah, loolu dayoo boobu ak ak ak kéemaan googu rek. ak ak tolluwaay bu war na noo xam ni kenn du Sidi Birahim Fall. wallaay dëgg la ki muy wëri da koo xam. da koo xam. <laughs> daa xam ki muy wëri. <laughs> ndax ba mu toogee kër sëñ Taïba Dakar moomu. <laughs> ba gis Serigne Makhtar Touré. la njëkk a gis. Makhtar Touré di ko sëñ Bamba. mu ko dànn rek ni ki may wër a ngi nii ndax xetuk sëñ Bamba koy xeeñ. koo mës gis te koo mës a gis tey nga koy doo ko gis. xam ni ki may wër moom bu dul kii itam kii itam moom la bawoo. waaye sëñ Makhtar Touré. Mhm. sëñ Adama Gueye ko mujj sëñ Bamba. Hmm. ba mu séenee suñu aadama gay ni dukk yi kii la. leer gi gën a gën koo gën koo xëy. gën koo gan <laughs> waaw. moo tax mu gis fa Cheikh Adama Gueye sànni mbiram dal di ca ngoy. Hmm. ndeysaan. ko Bamba mbër mu rëy. Cheikh Bamba naan ko foofu xëy. Hmm. ndeysaan waaye lu doy waar daa caa am ci njëbbalug Cheikh Ibrahima Fall. mooy dañu ni dugub Cheikh Ibrahima ci yoon wi moog dugub Seydina Umar ibnul Xattaab ci lislaam ñoo bokk benn wàccuwaay. macha allah. Mm-hmm. day mel ni ku mënu woon ñàkk ci lislaam dëgg ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati ay loxoom mm-hmm. ni yàlla maa ngi lay ñaan nga dëgëralee lislaam ci ñaari omar yi kenn muy omar ibnul xataab mm-hmm. wala omar ibnul xisaam te muy abu jahlin ñaan nga nangu ci omar ibnul xataab omar ibnul xataab mi jébal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na lislaam amul doole bu ñu julli dañuy nëbbu bu ñuy nodd dañuy làkkatu Omar ñoo fekk lislaam am fanweeri nit ak juróom-ñeent. Mhm. mu dikk ñeent fukkeel leen. bi mu dikkee na def mooy yëkkati lislaam. Mhm. abul xafsin il faaruqu naadirun. Mhm. bi Cheikh Ibrahima Fall di ñëw. daa fekk yoon wi am fanweeri taali ak fukk ñeent مدك فك فأمر فك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بفك في سنتوبا وهو المتم مزاوي الإسلام يوم هذا ممن به كان للإسلام إظهار لسنتوبا أمر مونيونيك نين فكي لطالبه واي والله فارق بالفارق سجدنا الحق من باطل أفضله فجاره waaye suubu si noom rek dégg nga suñ tubaa lam ca wax wa yowma aslama jibrilul aminu ata bi idni huwa fawqa kulli qahaaru mualliman anna islaam alfata omarin busra li ahli sama wal kullu yuxtaaru nee na bis ba omar suubee jibril dafa ñëw ni Seydina daal di jóge ci suñu borom ni Seydina Muhammad tubuk omar gii day bëggug waa asamaan sépp la ndax moo islam a yëkkati lislaam busra li ahli sama wal kullu yuxtaaru Cheikh Ibra foofu la fekk Sëñ Touba. Mm-hmm. bi mu ñëwee jaayanteeg Cheikhul Khadim mm-hmm. lan la jaayanteeg Sëñ Touba. Mm-hmm. mooy sëriñ bu ay ma àggale ci suñu borom tabaaraka wa taala moo ma tax a jóg. moo ma tax a jóg ndeysaan. ku ma àggale ci suñu borom. lu yéeme ngi moo ma tax a jóg. su àgg tànk suñu borom laa topp ba mu soo ci sa kër gii boo ma wanee fu mu génn rek ma génn romb la ndax suñu borom rek laay wër. yàlla rek lay wër. booba sëñ Bamba. am na lu mu yor nit ñi xamuñu ko. Mm-hmm. waaye ki ñëw moom xam na ko. muy Cheikh Ibra. muy Cheikh Ibra tax booba yoonu murid taxaw na nag. booba mm-hmm. oh, yoonu taxaw na. dégg nga sëñ sëñ Moussa Ka li mu wax. Mm-hmm. gaa yi ñoo ko njëkk a jébbalu nag. waaye di leen njëkk a jébbale xolam. yaa njëkk jébbale sa xol. fekkoon nga gaayee xor-xoral. Ah, ñële yi taqal ñële yi nëxal yaa wane ngir mi ñuy doxe. lay dëgg la barke <laughs> waaw fekk na fay taalibe Mm-hmm. waaye di leen njëkk a jébbalu. ndeysaan. Mm-hmm. ah lii la sëñ Moussa wax. Mm-hmm. léegi bu mu ñëwee moom. lam wax sëñ bàmbaare yi. mooy sëriñ bu àgg ci yàlla te man maa àggale lay wër. ba mu ko waxagul kenn wax ko. kenn wax ko. moo ko njëkk a wax. la ilaha ko waxee sëñ bàmba it da koy nat. xaw koo kanaf kanafal ne ko yàlla mi ngay wax bu ma xamoon fu mu ne doo fekk. mu ne ko ab tànkam laa topp ba mu socc sa kër gi ba mu wanee fu mu génn rek ma abal la ndax yàlla rek lay wër dane ko sëriñ bi may seet mm-hmm. leer dana nekk ci moom goo xam ne mooy jañ lëndëm lëndëm yépp waaye mooy indi leerub dëgg sëriñ bu mel noonu lay wër dane ko nag bu ma ko gisul woon mm-hmm. fekk ma fi dara am ñu ne ma bàmmeelam a nga ne mm-hmm. danaa dem ci bàmmeelam di fa liggéey ba am fa la ma bëgg daal di koy jam nag mhm. sëñ Bamba ne ko Ibrahima Fall maa yow bokk benn gis-gis kat mhm. rasulullah bi ma doon liggéeyal mhm. su ma fekkul woon lu may dañ ne ma asamaan sii moo ko daan tiim suuf sii la daan dox danaa ko liggéeyal ba doon asnal xadim allahu akbar kon ñoo bokk pas-pas ñoo bokk mu daal di sëñ Tuubaa nangul ko njëbbalam nag mu daal di jaayante mu soobu far ba jiitu leen Bamba Seex Bamba ni kii ëpp na leen leeram gu réy gi wër na leen fu mu toll xol bay ndox ndox mu jaayanteeg Cheikhul Khadim mm-hmm. ni ko nag jébbal naa la sama bopp addina ak allaaxira mm-hmm. njébbal gi nag addina taxut mm-hmm. addina soxlawuma fi dara li ma soxla lépp yoomal xiyaam yàllaa ko soxla Cheikh Mahamadul Bachir nee na bi ma Cheikh Ibrahima nettalee lii dama ni ko waaw lii nga am ci addina kon lan moo ko war a gannaaw yow kawaru bopp sax maanaam daray addina da nga ni ko woon soxlawuma ko yow sëñ Bàmba ak lii nga fi am nii lan moo ko waral mu ne ko li nga gis nii lépp day ba ma mm-hmm. sukkee jébbalu ci sëñ ba mm-hmm. suuf sa taxoon samay óom ba ma jugee faxasu ndeysaan dara jëy suuf soosu rek ngeen gis mu topp ma nii waaye li ma sëñ Bambay fa yomal xiyam lañ koy gis ndeysaan loolu dara ñëw gucc ci àddina ci àddina li ñuy gis nii yëpp daaw xéwal yeeg yëpp waaw maanaam faxasitu wóom ya rek waaw xam nga sëñ Touba daa yaatule dégg nga li sëñ Moussa Ka wax mm-hmm. nee na ah, musali leen lii aw ban la mbanaga laala guñ ko junniy ñay la mm-hmm. xéewal yi ngeen gis fii sëñ Moussa nee na xet gi la sëñ Moussa nee na xéewal yi sëñ Bamba yi ngeen gis fii ñu koy xéewloo mm-hmm. xetuk togg gi la xetuk togg gi la musali leen li aw ban la mooy aw xet la mm-hmm. nee na mbanaga laala ko junniy ñay la guñ ko junniy ñay la musali leen li aw ban la rek waaw liñ naan cin bu naree neex su baxee xeeñ nee li lii gis Bamba di ko xéewloo ni nga xamni mourid murid yi ñëwuñu kenn sëñ Moussa Ka nee na gi rek la waaye li sëñ Bambay togg jundi ñay lan ba nag kenn laalagu ko waaw moo tax Cheikh Anta gawan ba mu yoree li mu yor ndayam gis ko soxna mhm. Anta Njaay ñu sëñ Bamba ni ko sama doom ji dama ragal yoomal khiyam mu ñeefa kenn mbaadu lan ko nara jox yoomal khiyam mom nga ko fay fi ah mu ni ko dedet Cheikh mm-hmm. Anta day keroog bi ko mbokki Mbàkke yoowee ni ko suñ Bàmba mii ngay topp gënu la ndax yéen a bokk bàyyi te seeni ñaari waajur yu jigéen a bokkoon génn kër gu doon liggéeyee mm-hmm. lam leen tontoon mooy jaral na ma jaral na ma googu Cheikh waxoon loo gis ci àddina moo ko jox waaye Cheikh li ma koy fay ëllëg laa koy fay laa ilaha illallah tey mm-hmm. soxna Faat Isa da daan def sëriñ bi daawul nekk ci kër gi di lekk waaye soxna faat isa da ko daan defaral wogg bu baax bam ko ko waxe itam serigne bi ne ko ceerno li koy fay laal ko ko li wog wog ma daan jox kep lay fay ceerno ni waye ab leggeem laal ko ci dara la ilaha illallah kay yi àndoon ak sëñ bamba la ilaha illallah suma la waxe fi Cheikh Ibra jaar do ñëw ci serigne Touba hmm da nga xamni serigne sëñ bamba kenn du moom wallahi ahmadou ñoom ni Cheikh Sidi Ibrahim hmm mam Thierno Ibrahima serigne daro serigne Ndiaye sëñ Daaru Assane jaay isa genn gis nga serigne daro Assane ah ah moom waaw ah, gaa yooyu koo ci taxaw wax rek da nga xam ni sëñ Bamba kenn du moom. dëgg la ndeysaan. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Daaru Assane Ndiaye. Mm-hmm. gis nga moom yoonu murit njëkk jébbalu ci la bokk. waaye daa nekkoon borom xam-xam bu nite. <laughs> sëñ Daaru sëñ Daaru Assane. ndeysaan bi sëñ Tuubaa wootee yoon wi ko ko njëkk a gëm mooy sëñ Adama Gueye. awalu man baayaani Adama Gueye. ka mooy suñu Ibrahima Sarr Njaañ borom jazaaka yaqulu Ibrahima Mawlaaka. ndeysaan xayral jazaa wa mun a awlaaka. faxlat bi annaka andi zuridan abadan wa zaka ribxuka fi dunia wa uxraka faddum ala sidqi wal ixlaasi mujtahidan fi sirri wal jahri kaytan mu mata yaaka ka ca topp mooy sëriñ kooku nga xam ne li woon ci moom ci alquran ak xam-xam ak ragal yàlla bu toppee sëñ bàmba rek sëñ bàmba kenn la ka ca topp mooy sëriñ ca mooy koko moo noon suñ tubaa nafaxta jiilaka duniyahum wa akhiratan jaddat dinan bila shayfin wala zumari ko jamono tele sëñ bamba ya ko jariñ Ya xeex ak tubaab bi gagne len te euro pak euro jasi sëñ daru asan jay mi ci top nak sëñ daru asan mhm. li tax mu yeex a ci suñ tubaa mo bi suñ tubaa wota yoni fa mhm. la ko mhm. fek waye dañ won du jébbalu ndax borom xam-xam la te du jahil dal du ko def ndax li nu xam ci liy àggale nit ci boromam daal mooy jàng ak jàngale waaye ba mu tuddee xaar mbir mi nii Cheikh def mu mhm. tëdd guddi listixaar bët set mu xëy ba tisbaar noonu ko suñu musaa waxee mhm. moom noonu la ko defee ndeysaan bi mu xëyee suñu borom xamal ko ni ko kat mhm. mbir maa ngi ci Cheikhul Khadim mu ñëw jaayante ak moom ba mu ñëw dafa indaale xasida muy ada ali xamarun laylat du junnaati falhum lu duuna mu min roon naati ñun daal ndekete dañoo newoon ci lëndëm goo xam ne Mm-hmm. leer gu la mën a niital ba nga dox sax amuñu ko woon mm-hmm. sëñ Bamba nag feeñ fenk na di jant ku demu jox ko sa bopp ab dof nga fal xumdu duuna masirin min roxonaati mm-hmm. daal ni surul xabib allati yaquudu zairuhu ila tariqi najaati wal karamaati dugal ziar yi sëñ Bamba mi nga xam ne jox ko sa bopp mooy buntub mucc mooy buntub teranga daal di ñëw jaayante ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul noonu la ko mag ñi defe woon gis nga sëñ Mouhamadou Gueye jëmmooyi noonu la ko defee woon gis nga Serigne Ahmadou faa Jama Ñang borom kër ñang ndeysaan ndeysaan jàmbaar yooyu jàmbaar jooju mm-hmm. moom bu ko suñ tubaa gaaralee yoon wi dana ko du ma jébbalu mm-hmm. ndax man sëñ Bamba ndajaay laa ci moom te bu dee daraja la ñuy wut mm-hmm. sama kër gii bu ma fi tëddee ci sama njewaan gii malawul enla bu ñuy diyaale fii laay toog di ko dégg sëñ Bamba ni ko Ahmadou Fa Jama di diyaale malayka baax na lool waaye fekkee jotaay ba ba lu ñoo diyaale laaj la ci ndigal ko doole mu ne ko bàkke loolu ko mënu ko jébbalu rek la fa faaw nga jébbalu doo jébbalu rek ma yóbbu la fa mën a digal malaaka yi ñuy def waaw bu jaayanteeg Cheikhul Khadim mm-hmm. suñ tubaab ne ko amul faa jama da ngaa bëgg ma tas la takkaat la wala ma cuut la mm-hmm. mooy li ci yow nga doyloo ko ma dolli la ci dara wala ma supprimer ko ba mu set joxal la sama yëf bopp mu ne ko mbàkkee tas ma ba ma ni tasar nga takkaat ma cee supprimer ma sëñ Bamba ko nga xam ne dara nekkatul ci bopp bi mm-hmm. dirub sept ans bi suñ tubaab paree ci moom dana ko naa la lépp ba des nga di ma ñaanal nit daana dikk indi aajo mun la demal ci ahmadou fa jamañang moo tax boo ko Cheikh Ibrahima almasari di tàgg dafa wax ni waxuwal imaamu wala nexmal imaamu imaamul muslimina maha ahmadou fa jama man ka na sëñ Bamba da ko def muy njiital jullit ñi moom moom sëñ ahmadou fa jamañang wallaahi ndeysaan gaa yooyu ñooy wala borom Cheikh Khadim gis nga bu sëñ Bay hmm. ah, doo gisee ñu leen di andil ñooñu sax ba tey dañuy wane ni day wob day wob ci seex ki yëkkati Seex Ibra ki tax Cheikh ibrahima Fall jóg mhm. wa ki taxone jéego yi Cheikh ibrahima jóg mu jox mu doxo ko jëm ci mom xamni ni mbirum yalla lepp lepp ci mom la daje mhm. manam mom rek la yalla wuyu mhm. lim ni ko jamono ju nek kenn la yalla wuyu te wuyu naa Cheikh Ahmadou Bamba ba nopi dama rasu ci mom jox ko sa pexe yep and ak mom mu indi la fi man ni def rasulullaay rek ah. ndax yalla dafa tektal seigne touba rasulullaay ngir bu ànd ak moom raasu ci mom jox ko bopam rek mom rasulullaay dana ko womat ba marale ko boromam mm-hmm. moo tax Cheikh Ibrahima Fall kenn du moom moo tax bàyyi gi mu woon bàyyi woon yàlla mm-hmm. ak bàyyi la goo xamante ne war nañ koo leeral de mm-hmm. du bàyyi gi gaa yi yaakaar bàyyi gi mu bàyyi woon yonent bi dañuy xool nan la bàyyee yonent bi du bàyyi gi gaa yi yaakaar de maanaam bàyyi gi mu bàyyi woon boppam ba nit ñi di ko wax nañ xool bàyyi googu gan bàyyi boppam la ndax nit mënta bàyyi boppam te di ko te te dénk ku mel ni sëñ Tuuba ku bàyyi boppam mënta jël boppam ron ko ci ku mel ni keppaaruk sëñ Tuuba sëñ sëñ sëñ Mbay waaw mhm. Mhm. ñu ngi woon ci jaay dëgg Cheikh mhm. gis nga bi mu jaay dëgg Cheikhul Xadim wax nañ tabaski gi ko fa njëkk a fekk mag ñëpp kenn ku nekk dafa dem wuti sam xar ngir waajal tabaski waaye xam nga lu Cheikh wuti moom ak buum bi mu ak buum daf koo yeew ci baatam. Mm-hmm. dikk nuyu sëñ Bamba jël catog buum bi teg ci loxoom. sëñ Tuubaa ne ko lii loo ci jublu mu ne ko tey la tabaski. Mm-hmm. ku nekk ngi wuti am xar ngir tabaski. Mm-hmm. ma bëggoon laa xamal ni la. borom tabaski yooyu na leen seen gàtt ya lewe noonu nga ma lewe bis ni ngi tey bu la neexee jëfandiku rayal bu la neexee lu neex defal mbàkki ak taalibe Mm-hmm. waxtu wu ne daf koy jàngale. dëgg la jaayanteeg Cheikhul Khadim jébbal ko léppam soxlawul dara. Mm-hmm. nga xam ne alxuraan moo nu jàngaloon teggin yi ñu war a àndeeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. te sëñ Moussa Ka nee na jiwaay muy sëñ Bamba. Mm-hmm. moo wuutu joojawaay. yii gaay muy ñun murid yi. ñoo wuutu yooya gaay te mooy saxaaba yi. waaw akbar kon na saxaaba yi defoon rasulullahi rek. alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. noonu la taalibe yi war a def. suñ Tuubaa waaleykum salaam. sëñ Maam Góor. noo ngi ziar bu baax a baax a baax kooku. Ba Baara Gueye. Baye. Baara Gueye. Baye Baara ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi leen ziar bu baax a baax de. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant ñu ngi baax a baax. ah nañu lool de ci tabbi gi. waaw ah, wallaahi ñoo gën a bég lool. <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan kontaan nañu. <laughs> ñu ngi am mbégte lool it. macha jataay. macha allah macha allah. Mhm. waaw ñu ngi am seen rëy. yàlla na seen borom doon ay taw pare. ndeysaan amiin amiin amiin. waaw ndaay waaye na aw yoon. Mhm, ndeysaan. Mhm. waaye te eh, tool yéen yéen a ngi koy liggéeyam ci toolam bi. yàlla na yàlla doole si doole si ñuy taw fii. amiin amiin amiin amiin. amiin eh, amiin. nii nii mu yëkkati si Tuubaa daal Mm-hmm. li ñëpp xam. Mm-hmm. télé bi daal di àgg tool yëpp teel a waay amiin waay ndeysaan. waay amiin sëñ Baara. bëgg na lool si jotaay bi de. wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ñu ngi koy topp bu baax a baax di leen ziare a baax. ah kii Baara. ziare boole mbokk yi ñu ngeen seqal plateau waay amiin ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw jërëjëf sëñ Baara moom mooy ci maj ma xu ni bu élèves yi saan moom nekk fee ca fulku maçon kër Serigne Saliou Touré ma moo leen waa média bi fay ñëw ñëpp mu jëwri ne leen bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ngànk liggéey bi euh, Serigne baara Gueye di ci jëf-jëf ju rafet nag ju yaatu joo xam ne daal euh, ju sedd ab xool la gis nga ko yitte jim def ci dugg ci émission bi woote rafet lu ko macha allah Serigne Bara bëgg nañu ci kontaan nañu bu baax yal na yàlla dolli sa tawféex bu baax a baax a baax euh, dolli la ak wér bu baax ak salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ziar bu baax. delloo ziar bu baax a baax a baax kooku. xam naa xam naa soo mënoon a sori télé bi tuuti rek wala nga wàññi ko. déggante bi mën a gën a neex. ñaanu su ko defee nga wax ñu sa tur ak fooy woote rek. Magu Mbaye. ah Cheikh Ibra. Ah, allo. waaw Cheikh Ibra noo ngi lay ziar. waaw ñu ngi ziar bu baax. ndeysaan Diak jërëjëf Diak. waaw Diak. ngay ziar baax a baax a baax. ñu ngi rafetlu xanaa bi woon. Mm-hmm. ndeysaan. waaw Mbaye ñaanal rek mu gudd wér rek. ndeysaan amiin yaa rabbal aalamiin ak sa bopp xam-xam ndeysaan amin jaak amin amin amin amin jaak amin jaak yal na yàlla amin amin barke Cheikh Ibra amin amin jaak amin jaak amin jaak moo tax ñu ndeysaan jërëjëf jaak jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibra loolu am na lu muy wane. Ah, ndax nee nga ma léegi moom Cheikh Ibra Fall bi muy tudd. Mhm. Cheikh fa suñ Fallu ñaana moom Cheikh Serif Assane Fall. Mhm. surtout maam Cheikh Ibra Fall direct. Mhm. moo jógee ci kër ga. te sëñ Cheikh Fall Ngonda léegi la ñu ko wax nag. day wax ni li tax sëriñ bi jóg. ngir yow yaa koy liggéey. Ah, kenn ku nekk la nga am rek. Wolof jaay wax na ko yaa ko may sa loo am rek yaa ko may sa bopp. kon nag ci lii. Cheikh Ibrahima Fall jaar yombul woon de. moo tax fii waxtaane nii ñu bari dañ koy déggaat nii. Mhm. ñu koy waxtaane waaye war nañoo xam ni ci booba jamono. Mhm. ak diggante yi ak ak dox aaju ju mel noonu yombul woon ci jamono yi mag ñi jamono yooyu suñ mbay bismillah ba ku duggaat rek mhm. xam naa tey moom bu ñu xasee ubbi téléphone bi moom <laughs> tubaarkàlla noonu lañuy <laughs> ok bismillah rek. ok jëf ñu ziyaara bokk yi dugg léegi. rawatina sunu xalifa boobu dugg léegi muy Cheikh di sunu kilifa nga xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, moom kéemaan la ni mu ni mu nu def wax dëgg yàlla sunu kilifa la waaye. Mhm. Euh, daanaka moom daal na nga koy ñaanal rek sunu borom yaa yàggal ko ci sunu kanam. Mhm. barkeb Seexul Xaddiim. Euh, di ziare mbokk yi dugg yëpp. demee na ñu ngi woon bi. ak ni mu jàngalee yoon wi. nga xam ni léppam moom la jox Cheikhul Khadim. daa mag mu ñëw ci Sëñ Tuubaa. ni ko dama bëggoon nga def ma ni Ibra Fall sëñ Tuubaa ni ko loolu fatna mm-hmm. mu ne ko ndax yeen ñi ci kër gi ñu di leen tuddé ay talibé mm-hmm. kenn ku ci nekk ba ngay ñëw fi sa jëmm da nga ko xaj ñenti xaj mm-hmm. ben nga jox yalla mi la bind ñaar nga jox say mbokk ñettel nga téyel sa bop ñentel nga jox ma nga doog a jox seigne touba Ibra Fall nag moom bi mu yépp la boole jox ma ñeent yépp la boole jox ma mhm. amatul ab cër mhm. kenn amatu ko ci Cheikh Ibra ku dul sëñ Bamba daa ma sa laaj mag ñi ni leen ndax xam ngeen luy menn xel mhm. mag ñi ne ko xanaa mooy ko am benn bët fenn rek lay xool ñu naa ko xanaa mooy ko am benn nopp rek di dégg bi ci des déggut muy leen loolu du menn xel Ibra Faal mooy menn xel xelam man képp maa ci ne leneen newu ci leneen newu ci rek a nekk cim xelam la menn mag dañu ci mom ne ko mbacke lu nu wuté lek Ibra Fall. mu ne ko yeen ñi ci kër gi kuma ci digal. so jugee da ngay xol buntu ba nga jaar ci dem defi la mëna la digal Ibra Fall nak buma koy digal fama ma lay xol lu fa mëna nek tay tay bob ba jall la ilaha illallah. daa wuuteeg gaa waaw ndeysaan wuté na def dafa wuté ak gaay mom Cheikh Ibra. ndeysaan deug la. seigne Bamba rek lay deglu deglu wul kenen mo nek ci xolam mo hmm. nek ci xelam mo ra Cheikh kep ko dingat seigne touba nga dingat ndax li Cheikh Ibra nekkee hmm. Bamba la ko gëna xam mo la ko gëna gis hmm. ku dingat Cheikh Ibra mo tax menn mag dafa ñëw ci seigne touba seigne touba ni ko ñett ngi ni kenn mu leen tab bi sawara ba ca njëkk moy tudd ma man Cheikh Bamba di tuddu goor ngir dend lañu kooku kenn ko koo tab bi sawara ka ko ñaareel mooy kii sàllawlu soxna jaara kooku kenn mënu koo dee tabbi sawara. waaw baatu sàllaw est-ce que mënuñu koo lee waa salaam wa rahmatullah. waaw ngi nuyu mbokk yi ci plateau bi. waaw kay ñu ngi lay ziara bu baax kooku noo tudd ak fooy wootee. man na seen mbokkum taalibe Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasruddin. Cheikh Ahmadou Saloum Dieng nu ngi lay ziar Nasruddin. ndeysaan waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi bëgg lool maa ngi nii ci dëkk bu tedd bi Touba. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin waaw kontaan lool ci ci ci liggéeyu Thiès bi kontaan ci liggéeyu rajo bi ak. ndeysaan alhamdulilah. ñaanal yàlla guddi gi guddi gi ngeen di màgg tey eh, yàlla na suñu borom amiin ko ak ñaan yëpp ak fàttali yëpp incha allah. amiin Dieng amiin amiin amiin amiin. ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm ci réew mi. amiin defal ñu uh, ak dal defal ñu tawfiq defal ñu taysiir. ndeysaan amiin. xew-xew bi ñuy jógee itam yàlla dafa ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin loolu yëpp dafay làkkuwaat ci yéen mën liggéey làkku ci weeru koor. Mhm, mhm, mhm. ñoo ñu sant ko suñu borom subhaanahu wa taala. alhamdulilah ndeysaan te. sant yàlla ci jàmm ji mu def ci réew mi waaye sant leen yéen it taxawaay ndax. dëgg la. Eh, bu bu fekkee ñu ci koor yi ak bu nekk bu nekk ci koor yëpp seen taxawaay dafa dafa ràññi ko. ndeysaan. ci wàllu delloo nit ñi ci ci ci ci démb rawatina delloo nit ñi ci liggéey mag ñi. ak delloowaat nit ñi aussi ci fàttaliku. joxoon ñu mag ñi. Mm-hmm. ndeysaan. Mm-hmm. te loolu suñu borom subhanahu wa taala moo ne leen fàttali ndax fàttali dafa jëriñ aji gëm ñi. Mm-hmm. te guddi gi ngeen di màggal ni muy guddi goo xam ni ñaari jàmbaar dañ cee daje a ndeysaan te. muy ku kuy wër yàlla ku fees dell ak yàlla. te laa ilaha illallah. waaw ah, ñooñu li li li olof yi naan. ku ku ku a ak kuy kuy. ku bëgg fu mu fanaan moom bu ñu dajee. yooyu. maanaam benn benn baata tontu lay doon. sëy wallaahi. waaw ah, kenn ëmpalewul ni jàmbaar jooju di Cheikh Ibrahima Fall Baabal Mouridine. Mhm. Eh, eh, jaar na fu bëree bëri xam na lu bëree bëri lu jiitu mu jaxasoo ak bi. Mhm. Eh, xam gi mu xam yàlla ak xam gi mu xam ni yàlla yaatoo ak xam na gi xamoon am na koo xam ni moom la la ko yàlla a booleel. Mhm. doon mu jaar ci doon làmp bi daal di loolu mooy mooy secret bi. Mm-hmm. xam bu yàggul rek Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi wax ni. Mm-hmm. bëri na loo xam ne tey jii taalibe bi murid yi seen xususiya mm-hmm. la wala seen jagle. muy boo gisee sa kilifa toog ci suuf boo gisee sa kilifa foon loxo ba boo gisee sa kilifa jàpp waroo ko nuyu te joxoo ko addiya ak nangu nangu kilifteef ak nangu ndigal. yooyu yëpp dafa bokk ci nga xam ne. Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouride moo ko incarné yoonu Mouride. jëf jëm ko daan jëf nag te sëñ bi nangul ko moo tax mu nekk loo xam ni euh, day xaw a day xaw a soppiku ndigal soppiku ak euh, euh, aw doxin. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax tey ab murit du nuyu ab sëriñ mës wala ab sangam te fóonu loxo ba. Mm-hmm. loo yor sa poos jàpp nga ne boo nuyoo sa sëriñ war nga caa jël addiya jox ko. bu kàddu sëñ bi jubee muy ndigal da nga koy jëfe muy tere da nga koy bàyyi. dëgg loolu yëpp nag Cheikh Ibrahima moo ko incarné wala moo ko dugal wala moo ko moo ko moo ko gunge ci Tuubaa ci liggéeyam bi. kon nag ñu ngi baax a baax a baax dama nekk dama dama xëyoon Tuubaa ni dëpp na ci yoon wi. ndeysaan ndeysaan. waaye bi ñu jokkoo ma léegi ma ne loolu naa ci kontaan lool ndax foofu sama télévision la. wallaahi wallaahi Dieng. ba ba ko jot kii may dama fa daan ñëw di fa teew di fa animé ay émission di leen di ci jamonoy corona bi. waaye loolu yëpp day wane ne rek seen yitte ak seen yaatal ak seen taxawaay. wallaay wallaay. maa ngi nuyu mboole seen mbokk yi toog foofu ci plateau bi di nuyu techniciens yi di nuyu waa Thiès yëpp. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di ñaan yàlla mu saxal jàmm ci réew mi incha allah euh, tey nag bëgg lool lool lool lool lool sëñ euh, ndax kii dugg. ku jige Cheikh Mouhamadou Mountakha la. Cheikh Mouhamadou Saloum Dieng. Ahmad Saloum Dieng. diko jige Cheikh Mouhamadul Basir mom Serigne Abdou Khadir mu don xaritam lol don kenn ci mom waye tamit don ko xamanteni ni Cheikh Mouhamadou murtada gor yàlla al mujahidul kabir manam liggey bi mu don liggey di ànd di dem ci bitim rew di dem ci naar yi fu mu fay dem daan na ànd ak Cheikh Ahmadou Saloum Dieng bi nga xamni taxawayam taxawaayam ci alxuraan gis na at mu jot ci bir weru koor yi manam bisub tari alxuraan bi mi def ay atti at mu diko def di ko ànd ak njabootu daara yi si Ahmad Saloum Dieng yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral la yal yàlla sàmm la keroog bu ñuy jël annonce su Serigne Saliou Touré bi juróom ngeen fukki fan ci weeru koor gi rek keroog bi mu ñëwee fekk caméra yi taxaw keroog presse bi ñeewante gi mu am ci ñoom ak li muy wax ni keroog xaalis bu bari la génne ci poosam jox leen ñoom caméraman yi ni leen wax dëgg yàlla bu ko defee lii ngeen barkeeloo ko ci annonce bi ngeen jël si te moo ne keroog caméraman bu fa ñëw rek Serigne Saliou Mbène am na lu mu jëflanteeg yow ndeysaan ci ak baaxam ci xam ni ku liggéey ñàqal doomu aadama dañ laa war a fay mm-hmm. ah, balaa saw ñàq a ko yonent bi sallallahu alayhi waxee suñ Saalum damay wax ne toujours bu ma ñeewante ci demee noonu mm-hmm. li war sama diggante nit ñi rek dee ma ci dimbali ah, ma koy jëflanteek ñoom suñ saal benn ku xam àdduna la mm-hmm. waaw ku xam nit la ku xam nit ci doom te loolu tamit lu ama am solo la sa nit ñi soo bëggee ànd ak ñoom dëgg-dëgg doo def sa bopp mu mun def leen ay maamul loolu du jaadu waaye nag boo jëlee sa bopp gën koo woyofal ci biir nit ñi jël sa yitte bëgg doon sa ne sëñ Tuubaa def doon seenu xaadam ndax saydul xaw mi xaadimuhum kon day mel ni euh, jiite jooju. allo waa kay bismillah. sëñ noo ngi lay ziar bu baax a baax a baax kooku. maa ngi lay ziar bu baax Thiam. ndeysaan ngi delloo ziar kooku. man soxna Mati maa ngi lay ziar bu baax soxna Ndom. su dee sañoon ñu ngi lay ziar baax. waaye ñu ngi lay Ah, waaw yaayu Fallou Bax kooku sama xarit la. ñu <laughs> ngi la koy kontaan nañu de. émission bi neex na na yàlla dolli ndeysaan amiin ndeysaan. kontaan nañu bu baax kontaan naa nuyu ma sama waa kër ku koy dund tamit waaw wóor na Cheikh Ibrahima Fall moom tam yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko maa ngi ñaan yàlla na ko sëriñ Fallu euh, yóbbu Makka waaw sëñ Fallu yàlla mën na ko Fallu Baxdaat ñu dund ba mu yóbbu ko Makka sëñ Ousmane mën ngeen a dugg na sama gan ñooñu waaw bismillah ndeysaan am na ku nekk ci ligne bi bismillah salaam. maaleykum salaam wa rahmatullah da ngay bàyyi télé bi rek nga dégloo sa téléphone. Ah, maa ngi lay bu baax kooku. bismillah. kooku daa mel ni rëcc na waaye sëñ bay jëlal micro bi tuuti rek ah, ñu dellu si waat ci waxtaan wi ndax man maam Cheikh Ibrahima moom. <laughs> téléphone bi neex na lool waaye fi ne waxtaan yi waaw dama ci bëgg ñu sori ci ndax fi nga fi toll moom fi ne moom eh, doy na waar lool eh, maam naam mu ngi yéeg baar baa ngi yéeg waaw baar baa ngi yéeg te damay bañ mu wàcc mu ne nii ba mu sedd <laughs> waaw danga koy dolliwaat bu baax rek incha allah continuer wéy la jaayante gi bisimilah maa maa ngi woon ci waa kay bisimilah ñu ngi ko siyaar tam ñu ngi lay siyaara bu baax kooku Abdou Gueye Nour Darayni ndeysaan eh, sëriñ du gay nooru daara yi ah du gay waaw sëñ Abdou siyaare baax ñu mbéccaam ndeysaan ndeysaan yéen ak jàmm ñu sant bu baax a baax a baax alhamdulilah yàlla saa borom dool tawfiq baax a baax amiin amiin amiin Fane Ndiaye amiin ndeysaan ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan di rafet di waxtaan bu baax a baax a baax ndeysaan sëñ mbéccaam moom ñu koy santaat bu baax baax baax ci taxawaay bi wallaay ndeysaan ak waxtaan am tawféex bi. alhamdulilah ndeysaan. yàlla saa borom ko dolli tawféex bu baax baax. amiin amiin barke Ibrahima Lam. amiin amiin ndeysaan. ci la xam ne ñu ngi di bàyyi xel bu baax a baax. alhamdulilah ngi di bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. ndeysaan. yàlla borom dafa leen tawféex baax Cheikh ah ñuy wax ci Mbacke wax ci nga Cheikh Fall ak Cheikhul Khadim ak waaw daje googu moom am nañ ci contentement bu baax a baax a baax. Mhm, ndeysaan. ndax daje googu moo waral suñu suñu mbégte mi tey jii. Mhm, ndeysaan. ndax bu nu daje woon rek daanaka dëgg bi ñu am tey jii nii. Mhm. du ko am. ndeysaan. kon ñu ngi santaat si Ibrahima Fall bu baax a baax baax. waaw ndax daje gi mu daje si Ibrahima Fall. daanaka taw feex ci ñun. barke Sëñ Tuubaa bari taw feex bu baax la ci ñun. ndeysaan ban yëg-yëg nga am ci Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina. yëg-yëg gi ñu ci am moom daanaka moom fu ñu ko takk maam góor. Mhm. fu ñu ko takk moom wees na ko. Mhm. Mhm. ndax Cheikh Ibrahima moom am nañ ci cofeel goo xam te ni ci moom. lépp lu ñu am ci sëriñ bi rek. daanaka jëm Cheikh Ibrahima Fall la jógee. ndeysaan kon ñun amee nañ ci Ibrahima Fall njukkal bu rëy rëy. ndeysaan. ndax li mu waxoon suñu Bàmba rek. képp ku dem ci tool bi. mën naa yoon bi. ndeysaan. kon moom mi yoon wi ñun mënuñoo am dara ci sëriñ bi te jaaruñ ci moom. dëgg la ndeysaan dëgg la. waaw. kon ñu ngi leen di santaat bu bu bu baax a baax ndax fi ñu doon lool. ci waxtaan bi suñu mbéycaat doon waaye ñu leen di gën a bàyyiwaat xel nag ndax yàlla na saa borom. jërëjëf jërëjëf bu baax a baax. jërëjëf. barke sëñ waaw. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou sant nañu bu baax ci dugg gi ñu ngi si ar waa Nour Daare nii ak sëñ Góora sëñ Góora Guèye ñoom ñoom waa Nour Daare ñëpp a ah. waaw bàyyi bàyyiwul fa kenn rek sëñ mbay bu ñu xefee waa waa gars yi téléspectateurs yi dañuy jël koy siyaara bu baax. Hmm. muy bu baax wax dëgg yàlla di ñu bàyyi xel. ndeysaan siyaara waa Nuuru Daara nii yëpp ci njiital sëñ Góora Gueye. Hmm. si Abdou jërëjëf am nañu mbégte bu baax. ndeysaan demee na ñu bëgg a dugg ñëpp sax euh, xajuñu ci kii bi ndax. daal di ñu mën a woowee sama téléphone tey itam sëñ Maxtaar agsi na. waaw sëñ Maxtaar ak sëñ Ousmane mais Nuuru hmm. Laay xam naa dinañ ñëw si kanam. waaw incha allah ndax mënuñoo jotaayal Cheikh Ibra Fall te tudd nu baatu. waaw ah, kalimatul te xam naa loolu sax di nga ci ñaraas dara laal Cheikh Ibra Fall ak tur mm. yàlla ak dayoo bi Sëñ Tuubaa jox tur yàlla bu pare mm. rafaatal ko Cheikh Ibra mm-hmm. xam naa kon maa ngi siyaaraale ñuy dugg sama téléphone yëpp xam a dugg ci jataay bi ah, mel ni sëñ Khalifa Gueye ak soxnaam soxna maam Jaara mm-hmm. sëñ Ibrahima Seen moom itam mm-hmm. di taalibe Cheikh boo xam ne ni mel na maa koy siyaara bu baax ndeysaan ak soxna Coro Jonn ak la soxna kon maa ngi koy siyaara bu baax a baax soxna maa ngi koy siyaara bu baax bu ko defee sëñ maam góor lii sëñ Abdou Guèye wax rek mhm. Cheikh Ibra Fall bu ñëwul woon ci sëñ tuubaa dara du ko jar dëgg la ndeysaan mhm. dégg nga ci njëbbal ga la sëñ Moussa Ka wax mhm. wax na ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lëmbiram ba kenn du jot ci baatinam lu dul ca bis ba nuy texe dëgg la ndeysaan sëñ Touba daam lu mu indi bëgg nu jariñoo ko xamuñu ko ndeysaan muy lami bagaasam bëgg a dem ca la Cheikh Ibra ñëw ni ko maa koy wane mooy wax jooju wax na ni tuuti kon mu dem mhm. fekk sëriñ bi lëm mbiram ba kenn du jot ci baatinam lu dul ca bis ba nuy taxe sëñ Modou Moustapha daana ci moom ni ko Mbàkke damaa bëggoon nga wax ma luy taalibe mhm. mu ni ko loolu sëriñ bu xam dara du ko waxub taalibeem ndax mooy bàyyi lépp jàpp ma xam nga sëñ Bamba mënta wax loolu ñi fi nekkoon ay bokkam lanu ñii di ay jegeñaaleem mhm. Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne gëj naa bokk ak moom ci aadama ak mooy dikk daal kii nañ bàyyi lépp jàpp ko kon moon wan yoon wi moo fi xewal soli sagar mhm. moo fi xewal sëkkal kawar moo fi xewal saxoo si kar daaw fi bay di rox roxi mhm, mhm, kon maa ci ñett yi nga xam ni Sëñ Tuubaa newoon na kenn mun leen a tee sa sawara nee na ka ca njëkk mooy tudd ma man Cheikhul Khadim tudd góor ngir dendelenu waaw waaw ah, loolu ñu ko bàyyi mbokk yi Sëñ Tuubaa newoon na bokkaale gi sama borom gën a bañ mooy Sëñ Bamba ak bis ni ki tey waxoon na ko mag ñi bokkaale gi suñ borom gën a bañ mooy sëñ bàmba ak ak ndeysaan <laughs> waaw loolu dañ ko bàyyi bokkaale bu rëy la sëñ tubaa ak sëñ tubaa ak diw loolu sëñ Ibra nee na ni àddina ëppee biir maag sëñ bàmba ni lañ ëppee ni lañ ëppee ko du ko dul ñun waaw bàmba tim ñépp sëñ tubaa nee na tudd ma tudd góor ngir dend la jëmm jooju kenn mënu ko tee mus te ko ñaareel nee na sa loolu soxna jaara mhm. war a wax soxna su tedd si way juru Cheikhul Khadim ngay jaar ca tur ba direct mhm. naan jaara waaw suñ tubaa nee na jëmm jooju mhm. kenn mënu koo tee sa sawara ka ko ñetteel nag nee na mooy kii di ngat Ibra Fall sëñ Bamba nee na kenn mënu koo tee tàbbi sawara di nga Cheikh Ibra Fall naar ba nee na tariqahu xayru turuq yoonu sëñ Bamba wi nee moo gën ci yoon wi am naara ko wax <laughs> nee na yoonu sëñ Bamba wi mooy ngën gi yoon ken du ko dingat waaw suñ tubaa nee na di nga Cheikh Fall ku koy def kenn mun laa tee tabbi sawara men na mag da ñëw ci di borom xam-xam ni ko mbàkke dama am ñetti laaj yu ma tax a ma di la ko laaj mhm. bi ci njëkk mooy mhm. alxuraan di ko jàng di ko xool mhm. ak di ko jàng ñàkk di ko tari bu ci ëpp aw yool bu ñaarel bi moy man do sama sering way sama serigne tudon na turam nak ca téré ba ma ko gis waaye dama koy baña tuddu tudd ndeysaan la mm-hmm. waaye damay def at mu nek ben yoon la ko ci gis wala wéri ma gis ko ci ben yoon yow nak do sama sering, te ayu bis mo ne ma gis la ba ko ñettel moy ni nga fonké sharatu islamiyya ku ñu wax Ibra Fall ne sa kër gi te du ko jëfëndiko nga koy seetaan lutax ñett la suñ bamba ko bu njëkk bi te mooy jàng alxuraan di ko xool ak di ko tari bu ci gën mhm. jàng ko di ko xool di ubbee ko tëj moo gën ndax dañuy fay loxo yi fay làmmeñ wi fay bët bi koy xool mhm. bu ñaareel bi mooy li tax sëb sëriñ doo ko gis man rek ngay gis li ko waral mooy man damay borom jamono bu ñetteel bi mooy Ibra Faal mhm. mi ngay laaj na nga xam ni li muy def ñàkk xam yàlla tegu ko ko kon jàppal la nga jàppoon tamaanu ci moom ñàkk xam yàlla ñàkk xam yàlla tegu ko ko ñàkk xam yàlla tegu ko ko <laughs> kon jàppal la nga jàpp te maandu ci moom kooku dañuy maandu ci moom Cheikh Ibra waaw Serigne Saliou Mbacké <laughs> danoo waxoon kan mooy sëñ Cheikh Ibra nee sa bo taxawé ci talibi bi di ñew bu mu mëna a doon. Mhm. da ngay top ci rang bi rek waye ndax xam ngeen ambulance. ndeysaan. mom mhm. de bu ne beur di ñew ñepp koy may ta la ci biir yab ko kenn xamuko ko moy Cheikh rafal don donte nga xamuñu sax. lu xamuñu lu mu yab. waaye bu ne beur di ñew ñepp a koy may mu jall nee koku moy Cheikh rafal ko ko de la route du ko sonal. waaw code de la route du ko sonal. gi nga seigne Moussa Ka bi moy seigne bar dani bu nga ti jiegom njanaaw amul yoon. Mhm. njanaaw amul yoon ta sañ-sañ ba ca bayam lu ci seen yoon Cheikh sañ-sañ la <laughs> kooku waaw Cheikh Ibra hmm. maanaam li ma la wax ni la nit ñi dañ ko umpale hmm. waaye hmm. kenn dabu ko ci del delluwe li mu liggéeyal sëñ Bamba fi mu tegoon Cheikhul Khadim kenn teg fa sëñ Touba lima la waxone ni la bam ne ñent yoyu kenn ku nekk ci yeen da nga jël ben jox yalla mm-hmm. ben nga jox say mbokk ben nga teel sa bop jox ma ben mm-hmm. mu len Cheikh Rafa ibrahim Fall nak bi muy ñew mom yalla mi ko bind sax la njëkk a bàyyi. waaye nag ko de. daan mm-hmm. ibrahim Fall su ko woon ba mu ñëw ma Fall mun ma mbacke ma yalla ko mi taxon nga di top banako ba ko mu delu ginaaw ci top gam ma topon la ilaha illallah. waaye li ma ko euh, fayee mooy ñi ko yaakaar moom Cheikh Ibra mhm. bu leen woowoon ba ñu ñëw mu ñu leen sëñ Bamba mi taxoon ngeen di ma topp banaa ko du tax ngeen ñu dellu ko topp kon aljazaau min jilzin amal jëf ju nekk la nga jëfee nga wax ji sëñ maam góor dégg lu yéeme bu ma woowoon Ibra Fall ba mu ne ko mhm. yàlla mi taxoon nga di ma topp banaa ko toppatuma ko toppatuma ko yàlla tax Ibra Fall dellu ginnaaw ci topp gi ma topp du lu toll du ci wàññi dara waaye li ma ko fayee mooy Baye Fall yii bu leen Ibrahima Fall woon ba ñu ñëw. mooy gars yi ci ndog yi de. gars yi ci ndog yi waaw waaw. gars yi nekk ci tool ba yàlla mi leen man mu ni leen suñ bamba mi taxoon ngeen di ma topp toppatuma ko. am na ko ne ci ligne bi du tax bàyyi wàllu dellu ginnaaw. <laughs> waaleykum maa ngi lay ziar de kooku. ndongo de Xaadim Soumaré. ah Xaadim Soumaré. <laughs> Xaadim Soumaré xam nga est ce que xam nga leen balaa dara xew. maa ngi sant directeur. waaw mot Seck. waaw PDG wallaay ndeysaan keroog tàbbi na ci jotaay bi sama xol sedd lool. dëgg la ndeysaan wallaay ndeysaan tey tamit ñu ngi yenn fee ca Madina Fall ci kër Cheikh sëñ sëñ Cheikh Fall Ngonda. ndeysaan ak liggéey bu rafet maa ngi lay ziar bu baax bisimilah sëñ sëñ sëñ sëñ Xaadim. sëñ maam góor ñu ngi lay delloo ziar. macha allah waaw. tey rafet lu liggéey bi bu baax a baax. Mhm, ndeysaan. di nuyu jëwriñ yooyu nga bokk toogal. ndeysaan. Mhm. di jégalu dog gi ñu dog waxtaan wi sax. Mhm. waaye ngeen nekk ci guddi gu am solo. mooy guddi gi nga xam ne tey mooy tombeek ñaar fukki fanu koor mm-hmm. te sunu yaakaar ki ñu dimbali tey ëllëg mm-hmm. gisante woon ci ak Serigne Touba mm-hmm. loolu it wax dëgg yàlla ñëpp di ko fàttaliku tey ndax tey ku jariñu ci Seex Bàmba rek maam Cheikh Ibrahima Fall lay dëgg la ndeysaan jotaay boobu ngeen def nag jotaay bu tedd la ndeysaan mooy nuyu sama jëwriñ yooyu ci waxtaan bu am solo yi di leen ziyaare bu baax te di leen dokkale Mm-hmm. di wax Thiès TV. Mm-hmm. ñu ngi liggéey liggéey bu rëy. ndeysaan ci ci diwaan bi. dëgg la. Mm-hmm. nga ànd ko ak sëñ Mame Gor Thiam. ndeysaan. ak fan yii yëpp damay suivre jotaay yi. ak Seydou Seydou sa xarit mu ngi lay dégg. Seydou sama doomu ndey la moom sama sëriñ la. ndeysaan. Seydou moom dafa bokk dëkk bi ba pare bokk RTT TV. ndeysaan wallaahi wallaahi. waaw ndax Mamadou Seck daf may waxal boppam ne ma saa bu ñu soxlaa dara rek bu ñu ko woowee day daw dawee Thiès TV ñëw RTT jàppal ci liggéey bi. ndeysaan dëgg la dëgg la. loolu mooy wane ni lépp benn la. wallaahi wallaahi ndeysaan wallaahi. ndax Thiès TV de euh, Wade. Mhm. saa su nekk day waxtaan ak man di ma soññ ci liggéey bi te di ma ci orienté. Mhm. te ndeysaan. te dañuy wax ni ku la jiitu ci néeg bi néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee. CRC bi ba ñuy tàmbali fii di liggéey. Mm-hmm. boobu dëkk bi bariwul ay télé. Mm-hmm. ndeysaan waaw ngeen di liggéey liggéey bu rëy. ñëpp di ko mm-hmm. xool di ko bàyyi xel. ndeysaan. ngeen dem ba tette tey macha allah waar wi yaatu. waar wi gën a yaatu dëgg la de. waaw waaye teewul yéen a ngi jàpp ñëpp. El Hadj Wade ñu koy ziar bu baax. macha allah ndeysaan ndeysaan di ko jox wàccuwaayam bu baax waaye di wax ne daal. bëgg nañu lool ci jotaay bi. jërëjëf ndeysaan. bëgg nañ ci lool maam góor. di la ziar di ñaanal. ci barke borom Touba suñu borom dool laa dëgëral. amin amin amin amin amin. macha allah bëgg nañ lool. wallaay ndeysaan. <laughs> maa ngi bu baax nag. jërëjëf jërëjëf mu ngi lay fay nee na mu ngi lay fay bu baax a baax. di di nuyu ndeysaan mu ngi lay dégg mu ngi ni toog. <laughs> waa kay ni toog ci caméra yi di di di moom di caméra lu kenn xamul rek. waaw bàyyi lu toj rek ndeysaan. <laughs> moom it ñoo toog nii di ndeysaan ndeysaan. daal émission bi macha allah jërëjëf bëgg nañu bëgg nañu Serigne Khadim. Euh, ndeysaan bu la neexoon nga kale euh, RTT bu boobaa itam ndeysaan li nga bëgg lu bari dana la ko jox waaye ndeysaan euh, nday ji Cheikh nga yow moom macha allah ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax yal na la Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall taxawu. ak seen Moustapha al mi nga xam ne amul lu ëttub daaru xuddoos yaakaaru lu daaru xuddoos yal na la wallu ci bépp mbir moo dugg rek bëgg nañu daal di siyaar sëriñ Ousseynou Ndiaye xasida ak sëñ Mor Massamba ñoom ahlu xasaay sëñ Mamour Sougou mi fi ñëwoon démb mu du xabaan waaye jànkatu xasida yi ñoom sëñ Xaadim Seck euh, sama xarit euh, tamit ndeysaan sëñ Dame Ndiaye ñoom waaye seen mag yi seen bàyyi jànkat yi ñoom sëñ Baara sekk ñoom sëñ Dame Euh, sëñ daam géey ñoom ak ñoom sëñ Mot Sagar ñoom seen magi jàngkat yi daal wax dëgg yàlla ñoom tam seen baay yooyu yëpp nañu seet sëñ Cheikh Ngounda Guèye léegi la yëkki kale kele bu am solo ndeysaan njàng ku ci njàng mu neex yëkkati ko jox ma ko ni ma dee ko wétlu ko kooku bëgg na ci man ak ak ak njariñ lu yaatu maa ngi suñu gan yi ñi xam naa ni après dinañ leen jox ñu tudd yàlla tuuti Euh, am na benn micro ñu ma ko mën a joxal sans fil euh, ñu jox ko sëñ Maxtaar Mële après ngeen jëlal ma ko mu tudd yàlla tuuti ndax jataayub Cheikh Ibra ni ma ko waxee euh, turu yàlla mënu cee ñàkk bu ñu noppee rek incha allah mën a dellusiwaat waaye balaay boobu sëñ bi fi nga tolloon baax na ñu wutal ma benn micro roxeya joxee ma ko fële sans fil bi laajama sëñ bismillah waaw fi nga nekkoon baax na mhm. waaw maa ngi woon ci Cheikh Ibra mhm. ak fi mu teg sëriñ bi mhm, ak gënal gi ko sëriñ bi gënal lépp nga xam ne xóorut lu may moom mhm. euh, sëñ Tuubaa dañu woon mooy menn xel Ibrahima Fall mhm. xelam man rek maa ci ne bëggul dara sëñ Bay Jaxate dañu woon mhm. ab murit mooy koo xam ni bëggul dara ab sëriñ mooy koo xam ne ñàkkul dara Cheikh Ibrahima Fall bëgguloon lu may jëmmi sëñ Tuubaa xis sa bu siiw boobu ñu ci nettali keroog bi Sëñ Tuubaa rëddee aw rëddam mhm. ni mag ñi ku jéggi rëdd yi fekk ma ci biir da nga tàbbi sawara la ilaha mag ñi ku ñëw mhm. ñu waxee li sëñ Bamba wax nga taxaw ci ginnaaw rëdd bi mhm. ah, bi Cheikh Ibrahima ñëwee ñu ne ko ah suñ Bamba de nee na ku jéggi rëdd yi fekk ko ci biir tàbbi sawara mu daal di ñaaj moom jéggi rëdd yi fekk sëñ Bamba ci biir sëñ Ibra Faal fere yi xanaa waxuñu la li lima wax ci rëdd yi mhm. mu ko ah dégg naa leen wax aljana ki sawara de waye man dama bëggul mhm. ragaluma sawara sa jëm ji rekk laa bëgg ta fu mu ma fekk ko fa sa jëm ji bëgg mhm. ta fu ma fekk ko fa bis japp ay loxom ci ay noppam mum sëñ Bamba nan Ibra Faal day gërëm nako ko Ibra day gërëm nako ko Ibra day gërëm nako Mhm. sëñ Mbàkke so ci xam-xam bu bari ba ak ragal yàlla ga ak mbaax ga ak njàmbaar ga mhm. ñëw ci sëñ Bamba ni ko suñ Bamba mhm. Ibra Faal loolu la defal ba nga gërëm ko ngërëm gu toll nii tey nga ma ko wax ma jëfal la lu ni mel ndax nga ndax ma am loola sëñ Tuubaa ni ko Ibra Faal day lim ma defal mooy xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa kon fi sëñ Séex Ibra tegoon sëñ Tuubaa mooy fa ko yàlla teg dëgg la isaan. sëñ Mbacke Bousso. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala ñu ngi leen di ziar bu baax. Mhm, ndeysaan. Mhm. di rafetlu jotaay macha allah kooku noo tudd Serigne bi nga baal ñu. Abo Mbacke. Eh, Serigne Abo Mbacke noo ngi lay ziar balaay sax. Mhm. waaw ñu bu baax a baax. ndeysaan. di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax itam. ndeysaan Mbacke jërëjëf. Eh, wax dëgg yàlla waxtaan yi am na solo. te itam lépp dëggu te tegu na ci xam-xam ah, mm-hmm. Mm-hmm. ndax xam nga mm-hmm. fàttaliku nit ñu baax ñi nga xam ne seen dund gépp dañ ko jox yàlla daf bokk ci lii mën a tax ñun ñii dund ñu mën leen a roy xam ba ñuy teg suñu tànk ah, ndax yàlla ba muy nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar-jaari gaa ñu baax ñi dafa wax ne ko jubluwaay bi mooy ngeen mën a xam na ngeen di seetantal ba fa ñu jaar ba am làq seen ngërëmal borom yéen ngeen mën caa jaar. may li mu wax laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albaab. kon nag Cheikh Ibrahima Fall jëm jàmbaar ju mel noonu fa mu jaar ak sëriñ bi. ba am ca lam ca am day te it may ko ko Pastef may ko ko. loolu jàpp naa ne murid yi. loolu mooy ab joxoon ci ñoom. ndax ndax ni ngeen ko waxee ci biir waxtaan rek ba muy ñëw. boo fekkoon ne ak taalibe bi tumuraanke woon na. nañu waa ay teggin tamit mooy sëriñ bi xam nañ liggéeyal ko moom am na fi waaye nag yoon wa ñuy jaar gi mën ko liggéeyal ba jariñu tey tumuranke woon na mm-hmm. mm-hmm. waaye ba mu ñëwee da caa jaar ba na fi wane yoon wax mm-hmm. loolu nag jàpp naa ne maanaam murit yi moom loolu doy na leen sëkk aw ñu mën a xam fa ñuy jaar ndax sëriñ bi moom dëgg la ñi moom jëm boppam ay bët tege tegee suko maanaam gisati gisatiku ci ay bët ña ko doon liggéeyal tamit gisatuñ leen waaye nag moom fa ko yàlla teg ak lam doon mayee ba léegi moom mi ngi fi mhm. xanaa pas-pas ba ko doon sàkku la ñuy wax ndax mi ngi fem déet mhm. te pas-pas boobu li bi am na ko ngir sàkku ko rek incha allah sëriñ bi moom lam doon mayee ba léegi mi ngi fi mhm. kon jàpp naa ne Sëñ Ibrahima Fall war nañ ko waxtaan bu baax a baax waaye nit ñi it war nañoo xam mbiram ndax waxuma la kuy wuti yàlla waaye kuy wut àdduna dong faaw nga sonn dëgg la balay sa wut àdduna rek faaw ma jaral la teel a xëy faaw jaral la teel a nelaw faaw ma jaral la itam nangoo sonn te itam wuti yàlla moo gën a jafe wuti àdduna mhm. parce que Ibrahima Fall laata muy dajeeg sëriñ bi wut na yàlla ay at yu baree baree baree bare ba àgg fa te teewut ba mu gisee sëriñ bi daa mel ne koy door a tàmbale waaw ah, te ñun ñii moom daanaka ku ci dox tuuti rek jàpp ah, kon kon kon ñu ngi ñu ngi soññ suñu bopp di soññ mbir yëpp waxtaan yu mel nii ji di ko teewul ak di ko topp mhm. ndax dana tax ñu mën a xam fa ñuy jaar ba xam fa ñu teg suñu tàng ba mën a ci ay ngërëmam. ndeysaan ñu ngi jéglu bu baax. Mbacke Mbacke di leen sant bu baax nag di leen ñaaral. si si si ngi jéglu bu baax. Hmm. waaye jubluwuñ ci dara nag lu dul bëgg xam sëñ bi rek. Hmm. danoo bëgg xam sëñ Abo kan mooy waajuram ak sëñ Abo kuy maamam. waaw Imam Munjar Promsam. Ah, sing masih mau Promsam, desa. Si Promsam, Promsam lo bakwa. Ya si tidak tahu ya jadi ah, ah, <laughs> hmm, naik ini lagi si cici asir dari al Ah, desa, ya, desa, desa. Cici, cici. Dengan sudut sing Imam Munjar. Ah, wallahi magi mak. Promsam magi mak desa. Lo releng ci jublu won Mbacke jërëjëf. Ah, insyaallah. Jërëjëf si abu kontan nanti tey émission bi alam ndaw mi na. Insyaallah jërëjëf. Desa, ni ñu wax naan bu suñu yemoon sax ndax surtout Sëñ bu sotoo ci sëñ Tuubaa yàlla yàlla yàlla yàlla defal leen tawfeex daal ba lii ngeen doon waxtaane daal la cee njariñ ak la cee yiw la yàlla dig aw yiw lépp ci waxtaane ku ak fàttali ko suñu leen ko yéen amin amin ah, ko mboolem ko doon topp ah, jërë jëf jërëjëf Mbacke ah, jërëjëf Mbacke bëgg lool yàlla dafa def ci waa kër sëñ Mamour Diarra ma am ci ay xarit ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom sëñ Yadaali ñoom sëñ Xaadim Mbacke waa kër sëñ Baara Xurajee ak ñi ci bari daal ah, doon samay xarit rawatina ñi daan ñëw Côte d'Ivoire nag ñoom sëñ Xaadim Mbàkke Xaadim mag ak mu ak sëñ Seex ñoom ak sëñ Yeddaani ñoom ñëpp ba ci sëñ Fallu ñoom ñëpp samay xarit lañ wax dëgg yàlla waa ko sëñ Maam Mor Jaara waa kay bismillah salaamaaleykum wa rahmatulah maaleykum salaam wa rahmatulah kooku sëñ Maam Góor Caam Baye Fall maa ngi lay jaar maa ngi ah, ndeysaan sëñ bu baax a baax sow di la ñaanal jàmm bi yëpp. amiin amiin amiin amiin ndeysaan. suñ suñ mbay mi day ziar baax moom sax. ñu ngi ziar bu baax jàpp. di rafetlu jotaay bi macha allah. Ah, alhamdulilah. fan nan fan nan baax na ci jotaay bi ci liñ alhamdulilah. waaw ñu ngi ñu ngi ñaan suñu borom kàttanal leen bu baax a baax. image bi rek daa daa daa daa bàyyi faale lool macha allah. <laughs> alhamdulilah ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax waa kër gi yëpp kay sax waa koñ gi yëpp sax la ñu ngi seetaan kay bu baax a baax. waa kër waaw ñëpp ngi leen di teewlu bu baax kay di di di sàkku li yëpp nekk njariñ ci ñëpp. dëgg la ndeysaan macha allah yal nañu ko yàlla defal. alhamdulilah amiin ñu bokk ñun ñëpp. ñun ñëpp macha allah jërëjëf. macha allah mais waajur bi moom a topp rek ni ma naa naa woote ngir mu. dégg la sant la bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw ñun biir nañu xolam sedd na ndeysaan biram xolam sedd na lool bàyyi naar ku bëgg lu baax. Mm-hmm. ak bëgg ku baax ak fu baax. waaw mm-hmm. yamul ci bëgg lu baax sax damay wax ku baax ak fu baax Ah, moom noonu la sëñ Baye Naar noonu la ko yàlla bindee waaw ndeysaan xam naa ni nag eh, micro bi ñëw na eh, ci turu yàlla yi damay bëgg tuuti rek mhm. eh, nga nga nga nga joxal ma micro bi Seydou daa bëgg ñu dem fee ndeysaan am turu yàlla wi tuuti rek ndeysaan mu am nu mu defaat jataay bi ñu dellu siwaat sëñ Baye mhm. nga naan café tuuti mhm. ah, ah. <laughs> jotaayu murid day am naan kafe su ko defee nag ñu mën a wéyale incha allah suñu maxtaar jëlal micro bi ah, nga benn bennal bu dëgër rek ci tur yàlla ah, su ko defee ñu dellu siwaat maa ngi ziar sëñ Ousmane Nourullahi mu xaddimatul xidma kii bind na mu xaddimatul xidma bind tay sur ansir bind Nuuru Daarayni bind ci ay xasida lu bare bari kon tey sax day mel ni rek moom bu ñëwoon ci jotaay bi rek lay loolu doy nañu sëkk ñun waaye nag noonu la doon noonu la amee ak taalibe ak taalibe rek ko ñor ndog yi bi ma ko gisee ci biir ndog yi ak dayba bi mu am ci xasida yi ak ni mu toppee sëñ taala ñag mii wasilaam maanaam ak ni mu taxawee damaa sama xol dafa sedd te xam ne ak tali bi rek moom moo am solo waaw kon xam naa sëñ Muxtaar euh, bismillah ci tur laa ilaaha illallaah maam Suru Faal yaay aboo rijaal xam naa xam naa sëñ sëñ sëñ ah, bismillah waaw ak sa laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah maam Suru Faal yaay aboor jaal laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah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 لا إله إلا الله منصور فال يا أبو رجال لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله Mansour Fall yaay rijal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mansour يا أبو رجال لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله ما مصروفال يا أبو رجال لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله مام سرفال yaay aboo rijaal suru maam Seynabu Njaay falli du kenn faal yaa laa ilaaha illallah maam suru suru maam Saynabu Njaay falli du kenn faal yaa waaw laa ilaaha illallah maam suru faal yaay abu rijaal laa ilaaha illallah فلا إله إلا الله لا إله إلا الله مامسور فال يا أبو رجال الرجال سرمام سين أبو جاي فليدكن فاليا لا إله إلا الله مامسور فال يا أبو رجال لا إله إلا الله مامسور فال يا أبو رجال laa ilaaha illallah maam Suru Faal yaaya boori jaal jërëjëf eh, macha allah eh, Serigne Makhtar ci turu yàlla woowu day fekk ni maanaam lañuy ñuy wax naan dëbb gu nekk maanaam soq gu nekk am na kàndang <laughs> eh, loolu la ñuy wax kàndang ndeysaan sëñ sëñ bay jëlal micro Eh, xam naa ni nag eh, fi nga jaar ci kennal sëñ bi kennal gi ndax bu ñuy wax kennal sëñ Touba bu ñu koy wax rek dañ naan Cheikh Ibra Fall moo kennal sëñ Touba mooy ki nga xam ni waxi sëñ Abdou Lahad jam waxoon ni maanaam julli woor na naam baax bu julli woor na naam koor baax na naam natt asaka de baax na naam dem bak dem màkka baax na naam waaye li wér te wóor mooy nan mooy ci Serigne Touba te bañ koo boole dara maanaam wax jooju bu dee firi ko bu ñu ko doon firi dañ naan mooy Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina rek daal mi ngi wax tamit naan gëm ak wóolu yaakaar ak maanaam moom les rek moom les moom rek les koy def loolu tam bu ñu ko doon firi maanaam dañuy indiwaat Cheikh Ibra teg ko moom moo firiwaat loolu waaw ndax moo tax moom itam wax ni Cheikh Ibra wax Sëñ Tuubaa wax ni moom daf maa teg fa ma sama borom teg dama ne wàccuwaay woowu sëñ Baye dafa mel ni Cheikh Ibra rek des koy gis ci digg Modou ak Serigne waaw jëlal micro bi sëñ Baye jërëjëf sëñ maam góor waaye noo ngi sant bu baax Baye Fall ci si kar su am solo si mhm, ndeysaan nuy sëñ Mor mi dugg sànq moom itam mhm. ak sëñ Abo Mbàkke moomu di sëtub sëñ maam Mor Jaara borom saam wallaahi ndeysaan nga xam ni maamam sëñ Tuubaa nee na moom sëñ mhm. Mbàkke Kajoor képp laa gis ñu dugg ci bàmmeel yóbbaaluñ fa xàq yàlla yóbbaaluñ fa bor waaw sëñ Mbàkke Kajoor moom sëñ Mbàkke Kajoor yóbbaaluñ fa xàq yàlla yóbbaale ñu fa bor. suñu Mbàkke Kajoor way jur la ci sëñ Maam Mor Jaara nga xam loolu rek rek ci sëñ Maam Mor Anta Sali la. Mm-hmm. ñoo bokk maam Balla Aysa. Mm-hmm. ndeysaan. la de loolu des taxaw maanaam ñoom ñaar laa gis ñu dugg ci biir. yóbbaale wuñ xàq yàlla yóbbaale wuñ bor. ci ndeysaan. sa maam sëñ Abo ndeysaan kenn la. Kaamil alxuraan la daan naafila téeméeri rakka sëñ Maam Mor Jaara. ci. waaw baax na. am na ku nekk ci yoon bi bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah kooku. Euh, sëñ Alaaji Mbuub. Eh, ndeysaan xadaaqul fadaa'il. <laughs> ndeysaan. anta rahimu samadu rahmaanu almu'minu muhayminu manaanu. anta rahimu samadu rahmaanu almu'minu muhayminu manaanu. من يرى مدنا خير الورى فذو سخاء قلبه مانويا حمدنا نسل الخور ليس العبد قد في القرار الوعد رحمتنا المتفاقا بصرا وجنا المتجام بصرا قبل ستجارة قد تجارة لم بصافي على من تجارة من زهمت أنه أنزل نزيل أحمد وقد تعالى ذلك عدوا والله دي راج بوب kontaan nañ de yéen ko am na lu siyaar baax de la siyaar baax baax baax alhamdulilah noonu lu siyaar baax sëñ Mbaye Thiam waaw jot bi am mbégte bu baax nag ci ci ci waxtaan wi. alhamdulilah ci laaj bi. waaw loolu ci am mbégte bu baax di di bëgg ci moom bu wér a wér. ndax mm-hmm. mm-hmm. euh, sunu sunu tàggat yi itam. Mm-hmm. Euh, ku ne ku la sagal ku la si gën itam. dëgg yàlla ko ku teewoon waxtaan wi. dina dina yëgaat ci sukkand bu baax. Mm-hmm. waaye dina ci dundaat man fekk waaye ma fàll. loolu nag li ko ko may. mooy yaram ak it gërëm. Mm-hmm. waaye ak nu ngoo gëstu ci mbaa. loolu nag suñ ñu lay ñaanal bu baax suñu borom kàttanal la. waaye waaye suñu borom dooleel la ak Seexul Xadiim di di di daal jaajëfal bu baax suñu maam góor tam ci ci taxawaay bu am solo bii mu taxaw ci bokki taalibe yi nga xam saa su ne mi ngi mi ngi taxawal détail yu mel nii ngir ngir murid yi di bëgg waaye ngir taalibe yi di bëgg ngir ñu gën a xamaat kan mooy sëriñ bi boobu gën a xam kan mooy Maam Cheikh Ibrahima Fall noo toog sëñ bu baax ak lu doon jëf ay lu ndeysaan ko wax ak ko di ñu leen di ñaanal baax. barki barki barki barki barki waaw def émission di ci Badar. waaw waaw waaw waaw ñuy teg sa sa sa sa sa sa sa. waaw ndeysaan ma ma ma koy seetaanaat. walaay may may wax ndeysaan taxawaay boobu nga taxaw ci Badar waa ahlu Badar. lu doy waar la way yu doy waar nga ci way ndeysaan. waaw si ñooñu. xam man man su ma gisee waa ahlu Badar noon ñu taxawoon Hamza ñoom ak gars a damay gis sàppe ndog yi rek laay gis ay ñoom suñu Ousmane Nouri laay gis ak gaa yooyu ni ñuy taxawee ci ndog yi rek. ba <laughs> wallaay wallaay wallaay. Baye Fall yi rek image boobu Baye Fall yi rek la lay jox. ndeysaan. Mhm. bis boobu maa ngi ci dégganteeg Serigne Seye bu moomu ci am solo mu taxaw ci télé bi. Mhm. muy Seydou Diallo bi xam ne ci ci réseau bi wax dëgg yàlla di di ku baax. Mhm. ndeysaan waaye di di di di rafetal liggéey bi boo ko xool ci sa xol seddal. ndeysaan. dama koy wax ne ko laa man maa am ci ñoom yéene. ndax taxawaay bu am solo dina taxaw ci lislaam waroon na ñaari fan ñett yéen a ngi defal leen bis màggal leen Sëñ Tuubaa rek tax. yéen a ngi Sëñ Tuubaa daana naa leen. saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine. kon ki nga xamante ni référence boobu la daan jot murit am na fu mu leen teg. kon ñooñu seen liggéey ci yoon nga diine. Allahu akbar. lalu moom wax lu def at yaag yooyu ngir ngir ngir ko ci wax ko badar bëgg nañu tëddee bëgg nañ ci ndeysaan waaye bàkk xara eh, badar yaa fa daan Moustapha jël nga ndam li wallaay jël na ndam li jërëjëf sëñ Alaaji Mbuub kontaan jërëjëf sëñ Alaaji kontaan nañ jërëjëf jërëjëf ndeysaan keroog itam moom mii ma feggool dugg na dugg bu am solo moom sëñ Mbay Càmm waaye tamit ndeysaan eh, Mbay acca rek maam moom maam moo ngi noonu ndeysaan. waaw ah, ndeysaan. waaye Seydou jërëjëf kontaan nañ de macha allah. Mhm. jërëjëf sëñ Alaaji noo ngi koy siyaara bu baax. Mhm. wax dëgg yàlla moom it sunu mag la sunu xarit la. Mhm. lu bari ci liggéey bi ñoo koy ànd. dëgg la. ñoo ñu ci jàppale di ñu booleeg ay nit ñu di leen waxtaanal. ndeysaan. kon noo koy ñaanal bu baax a baax a baax. waaw day mel ni ñu ngi woon ci Cheikh Ibrahima. ak jaayanteem ak lam fekkee woon nu jàppee ko sëñ Bamba ak lam fa indi. ndeysaan du ma fàtte nag ndeysaan waa Mm-hmm. Euh, bàyyi ma potoxlu fii ziar ko ndax démb rek euh, mu ngi waaj loo mbokki téléspectateurs yi ak téléspectatrices yëpp waa ji Pape ak Ola ak euh, ndeysaan Pape Silla ndeysaan ñu doon ñoo xam ne ci télé bi mm-hmm. seen taxawaay kenn mënu ko fay mm-hmm. ak sëñ Papa Gueye ñoom sëñ Moussa Wade dañuy taxaw temm rek ci loo xam ni maanaam luy jariñ ñi ci réew mi la ñuy jariñ réew mi laay wax kon ñoom ñu ngi leen di sant bu baax plateau ñu ci toog ba jóg tudd ñu leen ndax wàccaawee yëpp Euh, ñun ñoo ko doon ànd depuis démb ba tey euh, ñuy xalaat plateau bi. allo salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah bisimilah. sëñ maam góor. waaw noo ngi lay ziare kooku. dongole Soumaré moo ñëw. Soumaré Soumaré. ndeysaan Soumaré nuyu ziar bu baax a baax. maanaam Serigne Mbaye Thiam ñi nga invité. Mhm. ndeysaan. ñun suñu xol dafa set ci moom guy. Mhm. ndax ndaw la. Mhm. waaye mu ngi gëstu tam li muy wax mu ngi koy teg ci lu leer. ñun fi dëkk bi ñu nekk ci Thiès. Mm-hmm. Mm-hmm. day dëkk boo xam ne ci denc ak réew dañoo bari. Mm-hmm. bu ñu gisee sunu rakk joo xam ni bi mu génnee yàggul waaye macha allah lépp li muy wax mu ngi koy def ci xam-xam. dama bëgg Thiès gi ñu ñaanal ko. dëgg ñu ñaanal ko gudd fan ak wér. ñaanal ko kattan. mu mucc ci cat. ba lépp lu mu bëgg a leeral ci yoon bi mu def ci lu koy njortam. amiin amiin ndeysaan amiin ndeysaan. man ku ko naw laa ku ko bëgg laa. ndax damay wax ni sëñ Abdoulaye Thiam mi xam ni daanaka ci magi taalibe yi la bopp. sama xarit la waaw. yes moom kenn du naat table xam-xamam. Mhm, mhm. damay wax Imaam Mbaye Dieng bu ñu dëkkee ci Daaru Salaam. Mhm. kenn du naat table xam-xamam. la. waaye bu ñu gisee rakk yoo xam ne mel na ni topp seen i tànk. leen di dëkk. téye ko te ñaanal ko. wallaahi noonu la ñuy def. xol bu sedd rek waaw moo tax ma duggaat ngir seedewaat loolu. day jàmm ndeysaan jërëjëf sëñ bi. maam ko yooyu nga ñaanal ko. Mm-hmm. waaw. ndax yow jëwriñ nga nga. ndeysaan dañ ko ñaanal baax. Mm-hmm. incha allah bu ñu la maa ngi jërëjëf bëgg nañu bu a baax. man lay ziare sëñ Gora Thiam. Mm-hmm. Gora Thiam fële ca Bambara. Euh, Gora Thiam ku mën a teew lu samay émission la ak samay annonce sax dama koy wax mm-hmm. lu ma def ci télévision Thiès TV rek Gora dina ne ma seetaan naa ko maa ngi koy teewlu di ñaan yàlla euh, di ziar baayam Baye Mbaye Thiam ak waa kër gi ga sëñ Aliou Thiam ak soxna Awa Gueye ba ci Birane ñoom maam Gallo ak ñoom ñëpp ñoom ñëpp ziar naa leen bu baax a baax a baax maa ngi ziar tam euh, Ngunda sëñ Ngunda Jaw ak waa Njaween googu yëpp tamit ak ñoom sëñ Xaadim Jaw ñoom ñëpp sëñ Jawar ak mbooleem tamit euh, euh, sama sëñ galas mu ndaw ak euh, ndeysaan soxnaam nday ak mbooleem njaboot gi sëñ xaadim jaw ñoom ak suñu baay njawar ak ñëpp daal bàyyiwuma kenn ci njaween ñoom ñëpp sëñ jaw sëñ mbàkke sëñ penda jaw léegi fekk na ma fële ca kër sëriñ bi kër sëñ safal ngoon daa ànd ak sa maam Maxa ñu ñëw teew ànd ziyaare sëriñ bi maa ngi ciy ñaanal Baye Ibrahima ñan ñoom ñoo ko daan ànd ba Ibrahima Niang mais doonoon xalifa sunu baay Njaga Niang ak njaboot gi jiitu yëpp Cerno Niang ñoom ba ci Omar ak ñëpp yal yàlla yokk seen leer ak Baye Ma ndax Ibrahima bu musaana toll fii mooy ànd ak euh, ndeysaan Talla Gueye ànd ak sëñ Penda Diaw ñu siyaar si sëñ Cheikh Fall Ngonda bu sëñ Cheikh Fall Ngonda ba pare yaakaar naa dañuy jàll ci sëriñ Xaadim Lo dem siyaar ji ko kóllëre googu lañ daan dox ak mu jot tren ak at yu yàlla jëlee weddi sëñ Ibrahima leen yal na yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkem te yaa njaboot gi mu fi bàyyi suñu borom teg ci loxo euh, wéy leen xam naa ni maa ngi jégalu waaye da ngay ci xel mi bu dajee dara rek euh, nga profité ziare jàllale ko incha allah moo tax mhm. euh, maa ngi ziara bu baax sëñ Xaadim Soumaré bi dugg léegi moom itam mhm. wax dëgg yàlla mhm. am ci nun moom la am ci nun dëgg la barki démb kazu rajab spécial Cheikh Mamadou Fadal ñun ñii la ci dalaloon ñoo ko doon waxtaanee Cheikh Mamadou Fadal muy ku baax moom itam di nuyu sunu ñaari imam yooyu mu tudd léegi imam abdullah Thiam mhm. ak imaam Serigne Mbaye oh, Dia wax dëgg yàlla ni mu ko waxee noonu la amee ñoom dañ may soññ ndax fu ñu ma fekk ci barab rek mhm. dañu may lo loolu ab soññee la ndax li nekk ci ñoom asakaja asakaja ci ñun gis nga ci dar salam bayaan beeg lépp luy luy wàllu information ci jumaa ji mhm. man la ci doy lo doy lo kon nga xam ne rek am na maye gu waroon am ca jumaa ja mhm. bi mu génnee dama wax taxawaay yu bari ma taxaw ko maa ngi koy ñaanal bu baax mu si Thiam di lu bare bare bari bu ko defee mhm. fi ñu tolloon rek mooy eh, ku jariñu ci yoon wi war nga koo sante Cheikh Ibra ku ci jariñu ku mën a doon war nga koo sante Fall mu ñëw ko Sëñ Tuubaa fekk na yoon wi am na at waaye maay diw kenn du ko wax la ba Cheikh Mamadou Moustapha ni ab taalibe war a jàppeeb sëriñ sëriñ bu xam dara du ko wax ab taalibeem mooy bàyyi lépp te jàpp ma bi Cheikh Ibra dikkee nag dellu si waat aaya ja yàlla jàngale woon nan la ñuy toppee Seydina Muhammad yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabii wala tajharu lahu bil xawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun yéen jullit yi yéen saxaaba yi seen kàddu bu leen ko yëkkati ci kaw kàddu rasulullahi ni ngeen nekkee seen biir dafa waxante bu ngeen nekkee ci biir rasulullahi bàyyi leen loolu mën naa yàq seen jëf te du ngeen ko xam sëñ Moussa Ka nee na sëñ Bamba moo wuutu rasulullahi ay taalibeem ñoo wuutu lañ war a toppee sëñ Bàmba Cheikh Ibrahima daal delloo si waat loolu nga xam ne fekk na taalibe yi doon ay ayloo léeg-léeg kii yooyu fanaan ak sëñ Tuuba di ko taalal taal bi di bokk tëdd moom lekk léeg-léeg kii mooy bokk ak moom nangam nangam ba ñu def ay ayloo boobu ba mu ak ci Cheikh Ahmadou seex yi Ibra Fall keroog bu sëñ Tuuba duggee ci néeg bi daa toog ci bunt bi nanguwut a dugg ci néeg bi sëñ Bàmba nekk toog ci biti fanaan fa ba bët set xëy suba dajale talibi yi ne bamba sëñ Bàmba nii mayetuma kenn di ko nuyu di taxaw mayetuma kenn toog ak moom di sol mbaxana mbaa ngay tàllal sa tànk mayetuma kenn di toog ci moom di wax la la neex seeni kàddu dootul jugati ci kaw kàddu sëñ Tuuba moom dañu koy jàppee sang bi rek ñun ñu doon a jaam sëñ Musaa ñu fekkoon na nuy jàng fa maam mën na nuy ret yu pexe da ko daan jaral dóore bu la ko waxee nii defee ko noonu ci kanam Sëñ Tuubaa day bàyyi mu sedd waaye bu ngeen génnee moom dana am nañ def ak yow ba taalibe yi mujj dañ koy kalaam ak Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa woo Sëñ Daaru Asan ndax maama ma ñoo bokk maam Demba Njaay jare ni ko sa mbokk mi waxal maag moom dóore kat bokkut ci yëf yi nangam nangam Sëñ Daaru Asan génn ak Sëñ Tuubaa ba ca ruq ba génn ak Seex ba ca ruq ba ni ko Sëñ Bàmba ba na sant na la gërëm na la ni def nii rekk la ndax moo ko bëggaloon boppam te ko bu ko defee nag moom gannaaw ab murit la te ndigalu Sëñ Tuubaa rek lay diglu kon mu daal di gën a yokk pas-pasam waaw waaw euh, kenn dootul luy Sëñ Tuubaa di taxaw kenn dootul am Sëñ Bamba ci néeg bi nii ci biti mm-hmm. Sëñ Bamba buy wax ñëpp ñu xeraw lii moom waaw wuyoo ti naam mm-hmm. kon na muy jàng fa maam moom muy murit di pexe moo tax ab sëriñ bu toogee ci kaw mhm. taalibe yi toog ki suuf suñu mbaxana danañ mhm. ko sante Cheikh Ibra sëñ Tuubaa moo ni Cheikh Mouhamadou Bassir barkeelu gii ni ñuy def ci man ki ma ko njëkk a defal mooy Ibrahima Fall te sant bokk sëñ Bamba bu jàppee ma dikk njàppee ma bu pare naan ko lan la daan defalitee ak Cheikh Amadou Bamba bëggul dara sëñ Tuubaa rek la bëgg yëgul dara ci boppam sëñ Tuubaa rek la yëg sëñ Tuubaa rek la yëg nga xam ni loolu Mbàkke Kajoor la xewe woon waaye terewul guddi day fanaanee lëggéeyal sëñ Bamba yendoo lëggéey fanaane root banaan xuréet ba luy ganaar di korkor yi moo ko xewal daawul doxi yendoo liggéey fanaane root sëñ bi loolu yombul de dem ca toolu lëggéeyal sëñ Bamba ba ngoon guddi jot nga ni ñëpp tudd leen maroot ndaa yi bala kër gi ba ganaar di korkor yi maanaam ganaar yi sat moo ko xewal daawul doxi <laughs> gis nga melokaan yi tax na ba mujj gi dañ naan mhm. kii dafa dof man ma jéggal ci baat bi waaye loolu xam nga ku baax kon wax nañ ko wax nañ ko rasulullah wax nañ ko sëñ Bamba xaalu safiun li wa rahbati ko waraloon mhm. sëñ Ibra wasin na laa fi déggut te xam nañ ni góor du wasin la ndax dañoo xam ne góor du wasin waaye lu ne wax nañ ma ko dégg nga foo juree jar sant saaw naan ko dangay dellu ginnaaw jàngil mu rëcc bi pexe ma ne ko ñëpp di ko soow ma mel ni dof bu mat a yeew dégg nga ma mel ni dof bu mat yeew waaye mu di far ñëpp ni siiw meloom wax far di ko doxe waaw mu di ni siiw meloom wax far di ko doxe gis nga maam góor fi mu ne mm-hmm. kër goo dem am na baafaal boo demee ci Tijaan dañ naan kii baafaali kër gi te ka fa man nag ka fa man mooy doon baafaal laa yéen am nañu Baay Faal kër yii rek koo ci ku ci man dem naan kii Baay Faal kër gi te bàyyi boo xam ne nag xamoo fu mu la juree boo cee wax na nga ca wax loo xam waaw bàyyi boo xam ne fu mu la juree hmm. boo boo ne xësee ni bàyyi waaw war a xam la nga cay teg war a xam la nga cay teg te gis nga sëriñ la mhm. sëñ Bamba képp la doon waxub sëriñ ku dul moom doom la lay wax lu leer lu mu doy waar laa lay wax ku dul sëñ Bamba a ah, doom lay wax ku dul sëñ Bamba adoom la lay wax Cheikh Ibra Fall waaw waaw ah. moom sëñ fanu fanu àndee du fii waaw mm-hmm. ah, fanu àndee du fii waaw bàyyi góor yooyu ëpp naa ëpp naa dugg sax waaye fanu ànd ak sëñ Bamba du fii <laughs> waaw mm-hmm. ah, kooku keneen la mm-hmm. waaw yëndoo liggéey fanaane root ba mu ñëw Mbàkke Bawal nag def na ne waa kër gi bàyyi wal naay soq tey root yi di wal boo def di ko joxe mais waa kër gi bàyyi wàll jigéen ñooñu ba leen a wàcce woon liggéey jigéen ñi mbàkki ba woon may soq man sey ba tey rooti di wal waaye boo leen liggéey di ko joxe nga xam ne nekk na ci àll bi di liggéeyal sëñ Bamba ba tumuranke amatul yooyu mu sol waaye gis nga mu bëgg a génn wuti ay yére yu mu suturaale boppam ba yàgg mu yedd boppam ba bu mu gisee ak guy rek boo xam ne dañ koo xànc ba mu set wicc mu yedd boppam ba mu xoolal guy gi fi mu toog nga xam ne amul dara lu ko wër te bu fi toogee suñu borom dara ko fekk wadd ko may liggéeyal sëñ bamba lu ma waddoo naa fi toog xaar sëñ bamba bu mu wadd ma pas-pas boobu la daan liggéeyalee sëñ tuuba am na bis mu taxawnal ko matt mu bari ak pas-pas ba mu ko wënnoo matt ma diis waaye mu làmb ab xolam jaayanteeg sëñ tuuba taxanu waat lu toll la mu taxanoon te ko tegaat ko ci kaw lamb pas-pasam ba mu ko ne daa jóg loolu mooy pas-pas. moo tax sëñ bi nee na lu ma waay bëggal man sëriñ bi. Mm-hmm. te te te te jàpp nu rek làmbal sab làmbal sab xol ca ca la bañ a waaye du ci man ba yàgg ak dig jam ko mm-hmm. mu sëgg da koo jënd ba yàgg mu ne waaw liggéeyal sëñ Bamba ba yàgg ab dëgg di jam nga taxaw di ko dindi boo faatoo foofa nag génn nga ci liggéeyal sëñ Bamba maa fi bàyyi dëgg gi tamit ci liggéeyal sëñ Bamba ba àgg bu ma joxee ndigal ma dindi ko ma baw bu ma joxul ndigal ma ba fi ba yemal moo ci Sëñ Tuubaa ni ko dama doon liggéeyal ca tool ya mm-hmm. ab dëgg dugg ci sama tànk mm-hmm. ma dëgg koo sekk taw ma ci sag ndigal ma bàyyi ba agsi boo ma joxee ndigal ma dindi ko boo ma ko joxee ma bokk ci ba yomal xiyaam Sëñ Tuubaa ni ko am nga ci ndigal dindi ko moo tax Sëñ Tuubaa moo wax ni mm-hmm. li ma Seex Mamadu Bamba Xabbaan jox kenn joxuma ko waaye li ma Ibra Fall liggéeyal kenn liggéeyalu ma ko Sëñ Tuubaa ko wax kenn liggéeyalu ma ko nee na <laughs> maye kala neex Cheikh Anta ma neex may naa ko la ma doon maye. dénkaane koo wóolu. ceer na laa wóolu dénk naa ko la ma doon dénkaane. jaay nag ka am njëg Ibra Fall am njëg jënd na la ma doon jaay. Cheikh Ibra kenn mayu daa jënd li mu doon jaay kon jaay ndeysaan euh, tey moom xol yi sedd na guy guy guy euh, ndeysaan euh, est-ce que xam nga ni nit ñi seetaan mbay kontaan nañu. sama téléphone ñu ngi may woo appel yi mënuma koo jël gars yi mënu jël appel wax dëgg yàlla. ngeen war a jaar ci buum gi rek buum gi sëy doo ko yor gis ngeen ko noonu ci écran bi wax dëgg yàlla seen xool sedd na bëgg ngeen émission bi am na solo ndax ki ñuy waxtaane moo toll noonu te soreegul nag dafa dugg Mbàkke Kajoor waaw foofu laa jëm si de damaa bëgg Ousmane nga daaj si kar su dëgër rek gars yi nuñ jéem ñu jéem xam naa kuréel bi ñëwul sax ndax kuréel bi daa waroon a fees foofu dell ngeen tudd yàlla ba ñëpp yëg ko ba salle bi di studio bi di comme yàlla jàpp na ne yéen yéen a ñëw moom ngeen barkeeloo ko rek Ousmane nga tudd yàlla euh, daaj bu dëgër euh, nooree ni euh, yaa ngi sëñ ndeysaan ñoom Moxtaar ak ñoom sëñ kii sëñ mi yéen ñëpp ngeen jàpp ci tuuti rek mu jolli incha allah ñu santaat bu baax nag soxna Guèye maa ngi koy ziar nday Marème maa ngi lay ziar Thion di ziar sa wayjur yu baax yooyu ak sëñ Ba sa mag ju baax ak waa kër gi yëpp te yaa ngi yendu ci keppaaru sëñ seex Fall Ngonda nekk ci liggéey ba ndeysaan ci xéewal ya te yëg-yëg bi moy bëgg barkelu ci jëfi maam Cheikh ibrahim Fall bi ma la fekke seigne Fallu Fall ne ma yaangi ci wañu sama xol dafa set nday ma dem lool lool ma lay ñaanal yàlla la nga liggéey ci ëttu maam kër maam Cheikh ibrahim Fall te seigne Cheikh Fall wax la ko ni la tay bo amul won yitte ju kawe ji do mën jotaay ak man te doomi seigne Saliou Fall seigne Serigne Saliou Fall Cheikh ibrahim Fall babu Mouridine wa kay malikum salam wa rahmatullah noo ngi lay ziar bu baax kooku nga yëkkati kàddu gu tuuti te jox ñu tur wi nga bëgg ñu si. Cheikh Ahmadou Sy maa ngi lay ziar sama jëw. waaw ndeysaan. maa ngi lay ziare bu baax a baax. ndeysaan sa allah sama jëwriñ. Mm-hmm. di rafetlu émission bi wax dëgg yàlla. ndeysaan. Mm-hmm. ah tey moom mu nekk bis boo xamante ni. Mm-hmm. ndeysaan. su ko taarixal ci yoonu dëgg. di di ñàkk fan. ci weeru koor. mu nekk loo xam ni. képp kuy ab murid euh, rek. Mm-hmm. war nga bàyyi xel ci bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ngir li reeral suñu yoon suñu diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba ba nit mën cee jëriñ. Mm-hmm. moom moo ko waral. te dëgg la. lay ziyaara bu baax a baax. ci xalaat nga am. bay siiwal. lu baax li ba nit ñi mën ci

ndeysaan Nasruddin dafa dugg ci émission bi wax ci ay kàddu yu rafet ci Thiès TV waxtu rafet ci maam Cheikh wax lu am solo ci maam Cheikh. Mouhamed Saloum Dieng du ñàkk loo ci wax ci ay kàddu. waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. euh, Mouhamed Mm-hmm. ñu koy xam moom moo moom xaalis ko jëm ak seen kër. loolu dafa dafa nekk loo loo confirmation rek xam ne maanaam dañuy ñëw ci tool di ko confirmer. waaye loo xam ne ëllëg la ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ñeenti bokk ko borom ngir ñëwaat ci kaw pour nga confirmer ko lu. ngir war a jaar ci plaisir bañ a dem ci. njëriñ li. ndax si waaw moom njëriñ amul yàlla ci kaw suuf. waaye dinañ leen na ko ji bu dem te kenn ci jëriñ. bu man sarafal mm-hmm. bu ci Sëriñ Tuubaa ci biir tey. Mm-hmm. dana ñëw ba dem kenn du ci mën a jëriñ. je ndeysaan. kon moom ñëpp fa ñëwoon ñu wax nan la ñu war a jëriñoo te teg euh, li ñuy jaaree ci kër bu rëy. moom ci wàllu boppam ñu waaye foo nekk ci boppam rek. Mm-hmm. rek Mm-hmm. buñ ko siré sa xel ci Cheikh Rawane lay def mm-hmm. li ko waral mooy contrôle na ko ci gerte woon moom suñu borom ngir ñu jox loom jaam yi nan la ñuy def rek ci jëm si ndax ña ko jiitu woon kat wax dëgg yàlla ay jàmbar la ñu lool mm-hmm. sëñ Adama Gueye sëñ mo euh, ji muy ak gaa yooyu yëpp ku nga xam ne ñoo bi euh, ko jaayante ci jaayante ci Serigne Touba teewul seen jaayante sëñ Tuba ba pare sa borom Serapal léegi la. da mm-hmm. nga xàll yoon xam ni kii ku bëgg a jëriñ si moom buñ ngay jëriñ si moom. ndax ñëpp war nañ ko njëkk. Mm-hmm. di ñaan ci barke Cheikhul Khadim. Mm-hmm. lépp lu waaye am a ñu ni de kontaan nañ bu baax a baax. dañ ko mag la sa macha allah moom day suñu kilifa sëñ Bay Caam moom moom sëñ Ahmad day suñu kilifa waaye doon kilifa gu oyof nag mhm, wallaay dëgg la doon ku modeste wallaay ah, doon ku baax mhm. doon ku yàlla may wallaay doon ku yàlla jox ab cër wallaay dëgg la tamit euh, wax dëgg yàlla mu mhm. doon ab taalibe bu ne nag ab taalibe la rek dara desatul lépp dugg na ci biir waaw ah, yàlla na ko yàlla sàmm yàlla aar euh, defal ko tawféex mu bëgg télé bi loolu tam mu bëgg yokkuteem euh, kon xam naa noonu la ñuy def Seydou Euh, sëñ Ousmane jëlal euh, micro bi euh, tur yàlla wu dëgër rek nga seq waaw laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah waaw ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah o. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله go. La ilaha illallah. La إله إلا الله لا إله إلا الله waaw kay ndeysaan na waaw yaga baax la la la laay faal ndeysaan cey jërëjëfati moom laa lay wax noonu nu Ousmane Noureyni nu ngi koy sant bu baax a baax a baax fi mu ne nii li ñuy wax naan maanaam li ci sëll yi ba muy ñetti ñetti ak li cëppi cëppi léeg-léeg mu doon nekk ci yëkk yi mu ni déggan ak moom sax li nga koy gis nii maanaam jàmbar la loolu ci xaside yi sëñ Tuubaa yi maanaam ku ko noote la te noote xaside yi yombut wóor na Cheikh Ibrahima Fall boole ko moom maanaam li xasida war a def ci nit maam doo ko def ci moom waaw mooy xasida Euh, sëñ sëñ sëñ bay warut def ci nit ki lu dul ab yar ak i teggin waaw def ci moom lu dul ab yar ak i teggin warut a def ci moom lu dul fonk doomu aadama yi ak waggal leen ak teg leen war leen fa nga leen war a teg sa diggante ak sëñ Touba ak njabootam gi xasida waru cee wàññi lu toll ni sirra maanaam ci li nga leen war a waggale ak fi leen war a teg ak war ma ji nga war a joxe. ak sa diggante ak bi ni nga ci war a doxee da waru ci da ko war a yokk waaye waru ko wàññ waaye waru ta wuññi ak taalibe waru cee yàq daal waxtu wi moo ñu jot sëñ bay te ku ne xam na ni naan bi dolli mar la war na jëmmi Cheikh Ibrahima Fall waaye nag yoon bu jeexul nag waaxasul du jeex waaye xañ na buñ amaatee yeneen jataay ndax da dugg Mbàkke Kajoor rek dugg Mbàkke Bawol demagoo sax Daaru Salaam jóge Daaru Salaam dem Touba demagoo Touba jóge tuubaa sëñ bi yabal ko ndar mhm. yàlla dogal na demagoo ndar sëñ bi jóge ndar jaar ndànd jaar ngumba mhm. ñëw cees mhm. ñëw jóge cees dem fekk sëriñ bi njaarim tey loolu boo ci jëloon Thiès bi sëñ bi ñëwee douze ans yi mu def fii fukki at ñaar Thiès doy na émission boo demoon njaarim la mu fa def diggante mook sëriñ bi ndax 16 ba 27 mook sëriñ bi ba 1930 la fa ju la fi Cheikh Ibra jóge ñëw fekk sëriñ bi Touba. kon yooyu yëpp muy ay mbir yoo xam ne bi muy ñëw ci moom daanaka ndaw la ñaar fukki at ndawal ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci la Cheikh Ibra Fall toll fekk sëñ Tuubaa am fanweeri at ci diggante yooyu ci lañ jaayante na leer nag maanaam bi ñuy ñëw ci yooyu engagement yooyu ak doxin yooyu boobu daanaka ci misaal mooy ay ndaw lanu ay ndaw yu ndaw ndaw ay ndaw kon nag loolu mat naa bàyyi xel ci biir njàngale mi Euh, ba yitte yi gën a gën a yokku mm-hmm. rawaat gën a kawe kon sëñ Baye nga jël micro bi xam naa joxe ay tuuti kàddu yu mujj rek incha allah mm-hmm. bu ko defee nag euh, ñu mën a bàyyi sama gaa yi naan café waaw noonu ngay def roqee am na solo joxe ma sama gaa yi kafe ñu naan euh, incha allah bu ko defee rek sëñ bay ñu yëkk mm-hmm. yëkkatiwaale njataay bi tàggatoo incha allah waaw Mm-hmm. ndeysaan di koy bu mm-hmm. mm-hmm. uh, bu baax a baax ak a nuyu ak borom bi baa jërëjëf jëf may siyaara ah, naa ko bu baax a baax a baax nga xam ne ma ngi waaj bis bu am solo bis boo xam ne uh, bisub seexi sëñ Tuubaa la seexi sëñ Tuubaa lay sant te xam nga moom sëtu suñu Aliou Touré la. ndeysaan bu ko neexoon woote bisub sant Cheikh Aliou Touré day doy sëkk. Mhm. ndax Cheikh Aliou Touré am na lu lu lu bari ci sëñ Touba. Mhm. waaye daa woote bisub sant Cheikh sëñ Touba yi. macha allah ki njëkk a jébbalu ci sëñ Touba ba ka ca mujj jébbalu. Mhm. bis boobu ca nga bokk. kon sëñ Mamour Touré def na lu rëy. bis boobu nag ma ngi yemoog ren la 4 mai incha allah. ñoo ngi koy yëgal jullit ñëpp di leen ko fàttali. sëñ Mamour Touré borom Touba jërëjëf. waaye noonu la ñu nuyoo itam sëñ Cheikh nga xam ne ñii dañuy suñuy sëriñ di suñuy xarit mm-hmm. waxtu wu nekk ñu dañu jàppale ci liggéey bi sëñ Cheikh Mbacke Lo Ifada maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaara moom itam mm-hmm. muy waaj bis bu mag muy bis bu laylatul xadar nga xam ne bis bi def bari na mm-hmm. waaye bis boobu moom dafa wax ko ci jox ndigal bis bu laylatul xadar sëñ Cheikh Mbacke Lo Ifada waaw bis bi na lool waaye bis bu laylatul xadar dafa wax ni sëñ Tuubaa moo ko ci jox ndigal nga xam ne bis bu mu fonk la noo ngi koy waajal bu baax incha allah sëriñ bi fas ko yéene ànd ak yow bu soobee yàlla mhm. noo nuyu waa Touba googu yëpp itam mhm. sëriñ maam Cheikh Ndiaye di sëtub sëriñ Daarul Assane Ndiaye nga xam ne mhm. ñooñu dañ maa jàppal seen bopp bëggal ma seen bopp def ma seen waxtaankat maa ngi leen di siyaara bu baax a baax a baax te di leen ñaanal li ñuy liggéeyal seen maam suñu borom nangu ko euh, di leen jox rendez-vous ko incha allah Touba euh, alxamis ak jàmm incha allah di nuyu ñu doon topp ñëpp bàyyiwuñu kenn di ñaanal suñu waajur suñu a a baax su waa Euh, te di leen ziara di leen ñaanal mhm. di sant sëñ maam Góor ñu lay sant bu baax a baax a baax di sant waa télé bi yëpp euh, di leen dig daje incha allah ba beneen jamono mhm. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ bay kontaan nañu bu baax a baax noonu la ñuy potoxlu ziare sëriñ Pape Basirou Diop euh, moom itam di ko ñaanal moom magam ju baax ji sëriñ Maka Diop ak njaboot ga yëpp wax dëgg yàlla ñoom itam ñuy taxawee laylatul xadar fële ca daaru karim wax naa ko sànq nu ngi koy ziar ak sàmba si ak mbooleem njabootu sëñ ma sàmba gi ñu koy àndal sëñ Bab Basiru ah, yàlla nañ ci yàlla yóbbook jàmm ak sëriñ Abdou Guèye fële ca ah, ndeysaan som mu ànd ko moom itam waa tazahudu si xaar bu som ah, di taxawee bis bi ci taxawaay bu am solo sëñ Abdou Guèye Rahim Guèye nu ngi lay ziar bu baax yow tam di la ndokkeel waaye waa Kama Xat Kunta ñoom itam di ko taxawee ndeysaan waaye waaye mooy bul xudduus eh, fii ci jàkka yi mut ji ci cité ñoom itam ak waa Sëñ Abdou ak mboolem ñi koy àndal ñoom itam di ko taxawee ak mbooloo yi nga xamante ne day mel ni waa Fathul Wahab tamit eh, Serigne eh, Aliou mbay ak waa Fathul Wahab gépp ñoom itam dañ koy taxawee ak ñi koy taxawee ci dëkk bi yépp yal na yàlla may ñun ñëpp ñu tàmbali ci bisimillahi rahmaani àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi kon xam naa ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ñi dugg ci biir jataay bi rawatina surtout Seexul Xaddim Serigne Abo waaye tamit ak euh, Ahmadou Ndeysaan euh, Saloum Dieng euh, moom itam di kilifa ak ñi nga xam ne ñëpp rek dugg nañu ànd ak ñun jataay bi Serigne Khadim Soumaré Serigne Mot sekk ñi nga xam ne mu ñuy bàyyi xel ak ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla lépp luñ ci am ci aw yiw ak tuyaaba yal nañ ko yàlla boole ndeysaan baay Sakk maa ngi koy ziar Fall ak ay rakkam sëñ taala fa falaa ko fekk tey ci kër ga ak sëriñ muudu waaye itam ak seen gan yu tedd yi seqaloon liggéey bi seen ñaanu maam gi yëpp ak mboolem waa daayira ba yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen jaar ziar sëñ Seexuna Wadd sëñ ba Badara Wadd mu ma woon ni ma mu ngi bàyyi xel jataay bi moom itam zikrula ak waa maddina Madina kaw Kawsara Kër Seex euh, mboolem ñoom ñëpp taaxi kaw ba àgg kër Seyib jàll ba euh, ndeysaan Njaasaan Tiwaawoon boo dikkee dem tubaab Peku ba a ngay dem lew na fépp kër Ibra Fall kër Thiam kër Daouda Cissé waaw gox yi yëpp daal Grand Sanding Mbour 1 3 4 lépp ñu ñuy bàyyi xel dañu topp euh, yàlla na yàlla may dégg ak topp ci li nga xam ne moom lañ leen doon andil ci yéene euh, ci barkeeloo ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ba yeneen émission ci biir émission Fulkul Masawoon ak seen télévision Thiès TV ak seen yeneen spécial plateau ñu fa yéene ko di ko ànd ak yéen. incha allah Seydou jërëjëf Roqaya jërëjëf ndayaan ñu ngi bég di ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy topp ci liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa